alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi gumba yi dem leen tay ba yéen ñu tay bi leen ngeen gis la woon ma Abdoulaye bët lam tayoon tey nee na fàng daw si leen tey baaraab yee ko tuddoon ndeke lu xam wolof la woon mbóot lañ tayoon hub ko fa woon bàyyi ñëw juddoo tey bañ a seet waaleykum mbokku nit yéen yi nga xam ne yéen a safoo di seetaan seen chaîne Kossy TV international tey di samedi 5 juin 2021 ñu ngi fii ci Taïba Niassène ci ab wuy si woote goo xam ne alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass moo ko woote woon. Taïba Niassène nag saa yuñ ko tuddee xel yëpp daj nañ maam El Hadj Abdoulaye Niass Al moom mi nga xam ne moo fàkkoon dëkk bu sell bii di Taïba Niassène waaye tamit xel yi duñ fàtte mukk bés bi nga xam ne. suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci la gane won adina ci dëkk bu sel bi ba taxna at bu ne ñuy màggal bés boobu waaye xeli duñ fàtte mukk ki nga xam ne moo ñu may ñu fàttaliku bés boobu muy Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass al Khalifa moom mi nga xam ne moom moderniser Taïba ba Taïba mel ni mel nii. woote al Khalifa nag Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass daf ko woote rek ngir liggéey bi nga xam ne. maamam ja defoon na ko ci dëkk bi baayam ba def ko fi magam yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu tamit defoon ko fi moom liggéey boobu la ñëw pour continuer moom ngeen di gis noonu ci cortège bi di dugg si noonu ci Taïba waa Taïba mobiliser ay jakarta ak ay borom fas ngir tertu ko waaw cortège bu am solo macha allah alxalifa nag indil leen nag ab sarica sarica boo xam ne dafa jëm ci wàllu mbay muy benn projet agricole mbay nag suñ koy wax fii ci Sénégal xel yëpp dinañ jëm ci kan muy Cheikh Ibrahima Niass ci taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci mbay fii ci Sénégal pour moderniser ko waaye tamit aussi tamit xel yi dinañ dëj kan muy Cheikh El Hadj ñas ci moom tamit liggéey boobu nga xam ne baayam tàmbali woon na ko moom tam mu def ci liggéey bu am solo ba tax na dinañ leen dellu su tuuti ci aat ci ginnaaw. ngir fàttali leen liggéey yooyu nga xam ne Cheikh Ibrahima defoon na ko fi balaa ñoo dugg si ci tukki bi nga xam ne tey alxalifa Cheikh Mamadou Mahi def na ko fii ci Taïba Niassène kon ñu bàyyi leen tuuti après ñu ngi dellusiwaat incha allah. lépp dana leer ci kaw mu dañ lii moo waral na xër ci baay ñas commencé teg ay junjam C'est un accueil des plus chaleureux qu'ont réservé les populations au chef de l'État au cours de la visite officielle entreprise par le président de la République dans le SIN Saloum. Le président Sangor a notamment été salué par le grand sérigne Ibrahima Niass. Ce champ de riz appartient au marabout El Hadji Ibrahima à côté de lui, le président de l'Assemblée nationale et le ministre Thierno Diop. Ces personnalités sont venues assister à la récolte dans un but bien précis. Le Sénégal manque de riz. Chaque année, il faut en apporter et cela coûte des devises au pays. En lançant l'opération riz, le marabout espère remédier à cette situation. jamono dafay dox jamono dafay yokk kon nit ñi war nañ saa yu ne ñuy yokk seen coono te ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy bay te yàlla may ngi suñ suuf si nga xam ne président bi ne wurus la te wax na dëgg lu nekk mën na fee nañ boole mbayam ceeb mi ci yiñ doon béy te bu mu tax ñu bàyyi yiñ doon bay bu jëkk dugub ngay bay bay tuuti gerte dem jaay ci tubaab bi buñ ca gisee njëriñ ñu di ko topp ba gerte gi di dem ba ak si fii man bokk naa ci sëriñ yi nga xam ne bokk nañ ci ñu jiite mbay gerte ci jamono tubaab bi eh, léegi mbayam gerte mi dem na ba ñëpp dugg nañ ci def naa ku leen waxoon sax ne bu leen bay gerte yi dootuñ ko déglu ndax gis nañ ci seen njëriñ te njëriñoo tax ñu di ko def kon nag moo tax mbayam gerte moom jaratu leen a jàngal moo tax ñu bëgg leen jàngal mbay yeneen ndax mboolem yi ñuy bay ci biti réew yëpp ñun ñu di ko lonki diko ko fi mën nañ ko bay ci suñu rew bu ñor ceeb bi waré na ci raw ceeb bi ceeb ba ci siin gën ko rafet gis naa tool yi ceeb yi ca saygon waaye gën nga rafet ceeb bi kon nak li tax ma def tol bi fi du manki ceeb dama bëgg rek mbooleem ku fi tew rek bu dee ne na am tolu boppam toolu ceebam te bu mu tolu toolu bu mu toolu dugubam e dimbalante gi itam ñu gën koo saxal e maa ngi bég maa ngi leen di gërëm te maa ngi leen di dig ne lii dañ koy saxal daf lii tàmbali rek parce que yéen a jëmee ko kanam te wan ko ñëpp e ba ñëpp topp ci ñu leen di gërëm ngeen yóbbal ñu suñu gërëm jot ñu ko kilifa gi nga xam ne moo nekk ci seen kaw maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass amal na ko fii ci Sénégal ci wàllu mbay moom jarutoon président assemblée nationale ci jamono jooju amul Cissé Dia ak ministre bi nga xam ne mooy waroon mbay ci jamono jooju ñëwoon seeti Cheikh Ibrahima Niass fee ci njombaatu ci toolam yooyu ñëw la Alassane Tall waaye li ay day wane Mawlana Cheikh Ibrahima Niass tànk yi am doole yi nga xam ne taxawoon na ko ngir moderniser mbay mi fii ci Sénégal tànk yooyu nag doomam jooju di Alaaji Abdoulaye Niass al Khalifa moom ci la nekkoon ba premier ministre jamono jooju di Mamadou Lamine Loum ñëwoon seet ko en ci toolam yi fii ci Taïba Niassène kon ñu bàyyi leen ak élément bi. taxaw rek boobu jamono machine yi ñuy liggéey na ba topp leen jonkan di béy waaw loolu laa ko wax bi jaaree mu ne ko wax soxla la bàyyi doon jaar te oto yee gën a gàtt waaw ma ne ko boobu ay kilisi leen ak naas yi waaw eh, nga baal ñu monsieur le premier ministre eh, gis nañ ne da nga fi ñëw at mu jot eh, lu jotewut ak wàllu gouvernement dara comme ni nga ko waxee ci biir saal bi sa déggante sa wëllëre ak sëriñ bi am na tamit firnde boo xam ne gis nañ ko ci jamono joo fi ñëwee dana tombe yàlla wàccee ndoxum yërmande fii si Taïba Niassène bu ma fàttewut yoon bi nga fi mujjee woon ñoo dañoo taw te ba tooy ñu gis tamit sëriñ bi am ay kàddu yu la doon bàtt la ñu for ci ay wax yu gàtt bokk na ci euh, di la ñaanal yàlla def sa diggante confiance bi nga xam ne président de la république euh, teg na ko ci yow muy jamono jooju nga xam ne yaa ngi nekk ministre du budget yal na yàlla dëgëral loolu te yok ko te tamit mu nek lo xamne ci suñu kanam lay doon ñaan googu tamit gis nañ la ñaanal la yalla yok la ci place bobu nga nekkon bi lolu amé matul at ñun def la nga nekk di premier ministre nga yilif gouvernement bi yëpp kon mën nañu gis nañ njiglaay nga ci sëriñ bi njiglaay la ci yow waye ñun tamit ñi ngi yakane tamit njiglaay nga ci mom ndax tamit nit ki fu nga tollu ci mom rek non lay tollu ci yow ñi yakane soko soo tamit yalla indi wat ko ci ñun ndax tukki na mu ñëwaat fekk ñu fi si jàmm euh, di la laaj tamit euh, ni nga gisee tool yi euh, ndax di nga ñëwee moom liggéey la xam ak jaamu yàlla loolu ci la ñuy yar njaboot ñi nga gis fi yëpp ay njabootam lañ ñi ko suñ papa wax nga xam ne mooy jëwlinam ci ñun kàddoom mooy kàddu kër gi yëpp muy Baye Mahmoud comme noonu rek la demee waaye kon su fekkente ni yaa ngi tamit ñu ngi lay wax nga bàyyi ñu ay kàddu ndax tey njabootam yëpp ñi nga xam ak ñi nga xamul ñi nekk ci France ak ñi nekk ci Amérique yëpp def nañ la kóllëre te dara waralu ko lu band yi mel ni comme yi ñuy seetaan ndax li ngay gis ni tey mooy ay bëtam ci fu mu nekkul Euh, mooy ay tànkam yi tamit ci fu mu nekkul ñu bëgg nga sànni ay kàddu ci noo gisee ci liggéey bi mu def fii ci Taïba Niassène. jërëjëf euh, euh, liggéey bi moom rafet na hmm. ndax wër nañu tool yëpp tool yi sax waxin la rek nde tool yi wër wër ko jafe na hmm. waaye li ñu wër ci tool yi ci gerte toolu gerte yi toolu suuna toolu basi hmm. toolu mboq mi toolu ceeb bi Euh, wane na sëriñ bi fii euh, liggéey na fi lu rëy rëy rëy mel na ni su fekkoon ni béykat yi euh, mag yëpp ci Sénégal def nañ ni moom mhm. yaakaar nañ ni Sénégal li muy jëggaan dootul bari mhm. waaw parce que xeetu pepp mu ne ak gànjar bu ne jéem na ko dugal na ko fii gàncax bu ne dugal na ko ci Taïba Niassène lu mu dégg ñu wax ca Amérique ca France ca anglais ba Gambie mu ñëw euh, for indi fii euh, di ko woon nit ñi li leen di ñaan rek mooy euh, kuy béy tey ba rek nga roy ci moom te kuy béy Sénégal tam te am lu toll nii ci suuf nga fexe ba def ni Alaaji Ablaye di def ndax bu ñu ko defee rek yaakaar nañu ni Sénégal mun na bañ a yi ni ma ko waxoon. Mm. ndax li am solo mooy nañu fexe ba mm. am. dund bu doy mm-hmm. waaw dugub ji euh, bu doyee rek euh, xam nga li ñu añee fii wane na ko mm-hmm. euh, dama wax sëriñ bi mm-hmm. parce que ñetti at rek nii nii moo koy toggal moo waxoon ko fi benn benn xeetu togg bu nga xam ni lu ñu def ci ceeb rek mun nañ ko def ci dugub mhm. mu ne ma bàyyil ma ma ma bi mhm. biñ ñëwee fii gis nii ni ñu koy toggee ci mhm. taax yi noonu lañ koy toggee fii ma ànd fii ak samay xarit yoo xam ne dañuy añ ba pare ma ne leen ceeb bi lan la ñu ne ah kii kat ceeb bu sew la ma ne leen dugub la dugub la <laughs> xam nga ba dee ñu defoon ko ceeb bu weex fii ñu def ko ceeb bu xonq donc wonee na ni bu fekkee ni ñun bëgg nañu li ñu li nga xam ne moom la ñu yàlla féetale parce que yàlla xeet bu ne def ko féetale ab pepp mais na tey eh, eh, ni mu jëf eh, Asie ba jox leen seen ceeb mu jox Amérique blé mhm. ak mboq mhm. jox waa Europe mboq ñun mel na ni dugub la ñu jox donc mhm. ni ñu fonk dugub bu ñu ko fonkee rek def ci lépp li nga xam ni moom la ñuy def ci ceeb boobaa bu ëllëgee boo demee Kaolack ak Ndakaar saaku saaku dugub la ñuy jaay mhm. waaw dugub bu nga xam ne nag dañ koy dañ koy soq rek mhm. parce que même dañ naan ceeb bi dafa yomb parce que dañ koy da ngay jël rek sóor mhm. mais ceeb bu jógee fële kenn mënu koo sóor dafay fekk ñu bàcc ko ba génne ko donc dugub bi bu ñu ko bu ñu ko euh, euh, soqee rek lu ne mën nañ ko cee defar waaw man fi ma nekk ci dakaar saa yi ñu toggee luy jëm ci xeetu ceeb dama leen wax nañ ma toggal dugub dugub waaw euh, moom la palais euh, de la république man bi fa nekk mhm. euh, xeetu lu jëm ci fari lu blé di defar ak mhm. lu ceeb di defar rek mhm. dugub bu boo gisee nag koo mi ngi mi mi Sénégal ci góor góorgóorlu mhm. euh, duñ ko mën a def lu ni ko waaw góor te di ko ci encouragé mhm. tey di ko xamal ni euh, fu ci toll rek mhm. ñun dinañ ko gunge nu ñu ne ndax lii mun a wal euh, law ci Sénégal yi jërëjëf jërëjëf monsieur le ministre macha allah ci seede yu am solo yooyu nga xam ne ki fi nekkoon premier ministre di Mamadou Lamine Loum defoon ko ci El Hadj Abdoulaye Al Khalifa léegi nag ñu dellu siwaat nag ci tukki Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass di samedi nekkoon le 5 juin 2021 fii ci Taïba Niassène ginnaaw nag al xalifa di yegg si Taïba Niassène jotoon nañ leen demal ca mairie ba daje fa ki nga xam ne mooy meeru Taïba Niassène mu indil ay leeral ci projet bi ak importance ki nga xam ne projet bi amal na ko waa population Taïba Niassène bañ fa jógee tamit aussi tamit demaat nañ ci nga xam ne mooy adjoint moom tam mu indi ci ay leeral yu am solo kon ñu bàyyi la nag élément bi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sant yalla julli ci yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam comme ni ko waxe tay ji ni ngi dañuy am wara am gan bu reuy gu mag ak khalifa maulana cheikh al islam laaji wa di mohamadou may ibrahim niass mo fi ñew tay mu nek euh, bes bu ñu doon sentu lu yag euh waye tay ji lako yalla dogal parce que xalifa Maolana buy ñëw fii ci Taïba xam ne mooy dëkk juddu Maolana Cheikh al dafa rëy ci ñun euh, temps bu ñuy doomu bàyyi di ñëw fii rek euh, mbégte lay do ci ñun waaye aussi euh, espoir lay doon parce que ñoom seen nooy ñëw di ñu upp rek ñu koy nokki rek ngëneel la ba tax na ñëwoom bi Euh, foo natt rek ci solo suñu ko jox ëpp na ko euh, muy ñëw nag di ñëw ci contexte bu particulier parce que moom expliqué na ko sax boo gisee boobu léegi ñëwutoon dafa am yóbbal bu mu bëggoon a indiwaale Taïba parce que fi mu teg Taïba donc moo taxoon mu ne bala ma fi ñëw daa daa am lu mu ñëw teg ko ci loxo Taïba loolu nag. nekk loo nga xam ne aussi lu am solo parce que ku xam tay ba xam ne euh, dëkkub liggéey la bu mbay la ci boo xoolee euh, fi mu nekk nii ci ñun ñoo loolu yàgg nañ ko wax ni suuf si bindoo fii population ni mu yem suuf si àttanul ko maanaam il faut que ñu joxaat beneen vocation suuf si suuf si euh, sinon duutu mën a sot duutu mën a dundal ñi fi ñu nekk. kon il faut que ñu xoolaat ni ñuy jëfandikoo suuf si li mu nisar nag indil ñu ko donc ci wàll woowu la jëm fexe ba donc suuf si ñu koy mën a jëfandikoo la ne maanaam du jëmati ci bay noor rek nawet rek noor nga tëdd waaye fexe ba aussi fi nga doon bay ci ab hectare euh, wala fukki hectare lan fa doon bay nga mën koo am wala lu ko doubler ay yoon ci benn hectare loolu defe naa fi la jamono toll beneen bi aussi mu am lu ko itteel mooy ndaw yi ca ndaw yi boo xoolee réew mi coow li yëpp léegi mooy ndaw yi ca moom jàpp na ne ndaw yi lii régler seen problème moo ñu delluwaat ci ci ci mbay mi loolu nag euh, boo gisee mu kii ko dafa nekkoon niseur ak ak en loo xam ne laay loo xam ne maanaam Cheikh al Islam Baye Niass joxoon na ko itte. ci ci fii la ko euh, Taïba ci la ko dóoree woon depuis ay années pratiquement cinquante yi ci la commencé woon di bay di woon ci beneen dimension bu mbay maanaam mécanisation waaye aussi beneen dimension mbay maanaam diversification maanaam yaatal mbay loolu nag ba mu fi jógee dafa xawoon na sooxe kon dañuy sant yàlla moom bi mu amee itti ak gis-gis bu yem ni mu ne ah loolu sama bay doon def ko moom laa bëgg a tey ñëw dekkal Li mu indi tay dafa nekkoon sama réew manam sama gént parce que dama ci dox jëm ci ay yoni yoon gis nga at yi la ci passé 2008 xam nga ñun andi naa fi li ñuy wax ferme Anida ferme Anida bi mu nekk lu dox waaye ca jamono jooje ñoom euh, ministre de l'agriculture ak ki dirigeant euh, bi dañoo ñëw xool ni ferme bi doxee ñu ne ma léegi dañ may defal domaine agricole partagé dab

waaye moo tax lii nga xam ne sëriñ maay yëkkati na ko dama ci kontaan ca dafay dafay delloosi rek seen histoire moo tax ñun euh, lépp ñu ci mën a jàpp donc pour mu réussir dinañ ko def parce que suñu géwoon suñu géwoon suñu nisal bëgg bëgg bëgg la mm. donc euh, donc comme ni ma la wax mm. donc ñu gàllankooroon ca 2008 mm. mm-hmm. ci ci ci ay ay ay mbiri politique rek mm-hmm. am misi alhamdulilah gannaaw bu ñu sant yàlla jële ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi Euh, ñu ngi am kontaante gu mag ci ñëw gi nga xam ne euh, xalifa bi daf koy ñëw tey fii ci Taïba Niassène mu nekk loo xam ne luñ fooglu la lu lu lu rëy la ci ñun di wax na rek euh, mbir la moo xam ne tey bésëb bésëb Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la ndax ku tudd Taïba Niassène tudd Mawlana Cheikh Ibrahima Niass kon xalifaam bu jógee na tey dafay ñëw seet si waa Taïba loolu mbir mu am solo la ci ñun mbir mu rëy la rawatina nag mu ne dama leen di àndaaleel sëriñ waaw sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne dafay ñëw waaye bu ñëwee dana lancer benn projet agricole ndax kat Taïba Niassène bu ñu ko waxee wax agriculture bu ñu demee ba fii ñu toll tey Khalifa Cheikh Ibrahima Niass ne dafay ñëw pour def benn projet agricole bu mag loolu dafay ñëw kon relever. wala mu yëkkati mébét bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass amoon na ko dans les années 50 ci Taïba ndax moo njëkk andi tracteur ci wàllu mbay fii ci Taïba Niassène mu nekk ci loolu ay années 50 la pour moderniser agriculture ci jamono booba mag ñi nga xam ne ñoo doon dem tool bàyyi wax nañ ne buñ bayaan gerte gi ba pare ba dajale ko léegi comme boo rombee Kaolack boo rombee Sonacos li ngaan ni ngay séenee jëli gerte yi mu ne jëli gerte yooyu tool bàyyi rek la amoon ci jamono yooyu xam nga loolu lu am solo la kon bu ñu demee tey nag ba fii ñu toll sëriñ bi gis na nag mbay mi moom la bëgg ñu def waaye ñu moderniser ko dafa ko ci beneen anam loolu dafa rëy trop ci ñun dafa am solo te wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne tey ba ñeseen yëpp pare nañ pour dékk ko pour approprier ko xam nañ la xam nañ loolu seen ak moomeel la ndax ku nekk xam na ne tool bi sëriñ bi daf koy indi tey ba waaye fi mu koy def titre foncier la te titre foncier bi ci turu Cheikh Ibrahima Niass la nekk. te kan réerewuñ mbir ne titre foncier képp ku nekk sa tur yaa moom loolu say njaboot dañ ko am nañ sañ-sañ ñu donn ko ndax loolu la leen yoon may kon bu sëriñ bi wëlbatikoo moom ñëw na ci biir titre foncier bu def fi def projet boo xam ne ni départ bi rek dana ma 200 hectares kon ñun waa Taïba loolu daf ñi yokk ko taxawaay yokk ñu góorgóorlu ndax bu sëriñ bi ñëwoon ne yéen waa ba titre foncier sama baay bi laa bëgg jël ñu defee ko neneen wala ñu mu def ci loo xam ne ñun ak ñun ak njabootam dañ koy jël mu jariñu konoon tamit dara lañ ci mënut ndax moomeelam la waaye mu ne may ñëw delloo leen ko ndax delloo ko mooy lan ma indi fi projet bu toll noonu def ko fi mu ñaal leen ñeel seeni doom ñeel seeni sët kon gis-gis bi suñ maam yi amoon ñun ba jël suuf si gor ko bàyyi ñëw ñu jox ko ko mu def ko tiitre foncier xalifa bi gis-gis boobu la indiwaat ndax bàyyi dafa waxoon ne suuf si defuma ko titre foncier pour mu nekk sama moomeel waaye dama koy def pour mu aar suuf si pour ëllëg mu ñaal waa Taïba loolu moo tax ñun ñu approprier projet bi sensibiliser waa Taïba pour ñu approprier projet bi te xam ne titre foncier bu bàyyi la kon bu sëriñ bi ñëwee indi projet bi ne dafay def Taïba kon dafa war waa Taïba ne suuf su seen suufi maam yi ngeen joxoon bàyyi mu titre foncier ko moom lay ñëw pour delloo leen ko waaye delloo leen ko ci projet agricole bu mag boo xam ne daf leen di ñeel ba kër ak àddina di tukki monsieur le maire dafa démarché mm-hmm. ba andi fi benn périmètre maraîcher mm-hmm bo xamné dem na ci 15 hectares. ci taay plan REVA. légui mu nek ANIDA. ñu réalisé ko def ci forage ba légui ñi ngi gis njëriñ li. mu demoon ba yalla dimbalé ko. bi ñu installé tool boobu. directeur ANIDA gis né tol bi amna solo. mu ne ko su ngeen amee délibération de 150 hectares dinaa fi indi benn DAC. muy domaine communautaire partagé. ñu waxtaan ak population yi ci jamono yooyu bañ joxe seen accord bañ def délibération bi. mu nekkoon projet de 600 millions boo xam ne quatre forages moo ci waroon a nekk mu nekkoon domaine agricole bu mag yàlla dogal ñu dem ba ci biir mu am gàllankoor ba am werante ba tax projet bi nax saay kon buñ demee nag tey ba xalifa bi indi lii xëy na suuf booba suufu domaine national la woon lii loi bi wax sax dëppwut ak li population yi defoon ba tax mu yàqu waaye na ci biir ak bokk ak masla ak kilifteef xalifa Cheikh Ahmed Tidiane ñëw ne ko am na coow na ngeen ko tëral ñu tëral ko bii nag titre foncier ci lañ koy def titre foncier ki ko moom kay su mënee joxe titre foncier mën nañ ko ci def foofu wax ji jeex na lépp ki des kay mooy ñun waa Taïba ñu góorgóorlu kenn ku ne fexe na man kenn du ma ci jiitu duma ci njëkk danaa fexe ba sama njaboot bokk ci ñu liggéey ci mu jariñ dëkk bi jariñ département bi jariñ Sénégal jariñ pays bi ndax lii mooy doxal àddina fi ñu toll nii lii mooy doxal àddina te bu ñu demee ba lii taxaw mu nekk projet agro-sylvo-pastoral comme ni ñu ko waxee secteur yëpp nekk ci biir ñëpp danañ ci liggéey ay unité de transformation dana taxaw lépp lépp loo xam ne nii lu doon jëggaani la dootuñu ko jëggaani te dana yokk chaîne de valeur bu am solo ci war a agriculture fii ci dëkk bi ba Sénégal yëpp tekki seen bët loolu moo tax ñun ñu xam lan la indi ba tax ñu approprier ko di ci xiir population yi di ñaan yàlla yàlla ko ci jàmm إله إلا أنت You. جهود البديجة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا غناو بن سانتي يالا جولي تي صلى الله عليه وسلم مبولو مو داجي امنا الا غو تخ ني تايبي سون جوتاي تاي ليكو وارال موي وقتان اك يين سي مولانا الخليفه شيخ محمد الماح ابراهيم نياس li nga xam ne mooy mébétam ci suuf su yaatu si ci Taïba Niassène naka la koy dundalee aaye bi ñu jàng léegi yàlla dafa wax ne ku dundal suuf dafa mel ni da ngaa dundal nit ñëpp ku rey suuf tamit dafa mel ni da rey nit ñëpp moom nag mu ñëw pour dundal suuf kon dundal suuf boobu mu bugg a def mooy ne mi ngi bugg a dundal nit ñëpp jazaawullahu anna xeyran nit ñi nag ñaar rek moo leen dundal benn bi seen xol yi lañ leen di dundale beneen bi seen biir yi lañ leen di dundalee gannaaw bi biñ ko seetaanee at yi passé yépp lu ëpp ci ñeent fukki at mi ngi dundal nit ñi ci seen xol ci di leen waar ci di leen wax lu leen di jëriñ te di leen firil téere yàlla bi ci di leen di firil hadis yonent sallallahu alayhi wa ci di leen di nettali siirat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci di leen di leeralal seen diine bañ xam ni ñuy jaamoo yàlla tey nag mu ngi jël beneen waar wi nga xam ne mooy dundal gi nga xam ne ci biir yi la jëm te yàlla dafa wax ne wama jaalnaahum jasadan laa yaakuluna taama wama kaanu xaalidin bindee fii nekkuñ ñoo xam ne dañoo doy walis lekk nekkuñ ñoo xam ne tamit dañuy béel ci àddina si kon foofu ñu jàmm yàlla pour ñu jàmm yàlla il faut ñu xam nuñ koy xamee xalifa bi dundam yépp jàngale ak jàng la waaye tamit pour ñi mën a dund comme duuñ malaaka faaw tamit ñi am possibilité yoo xam ne moo ñuy yóbbu ci ñi mën a fàgg lu ñu dundee tey ñëw na pour jël lu mat 400 hectares yoo xam ne mbindee fi ñoo ko tax a jóg mbindee fi ñoo ko tax a jóg képp koo xamante ne nii Euh, doomu aadama nga rek sëriñ bi pare na nga wërsëgu ci loolu noonu nga xam ne moom la pare pour liggéey ko ñi ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali ak jàmm teew na tey moom laa Mawlana alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim ñas jóge Medina bi muy ñëw dañ ko gaareel oto particulier pour mu dugg ci mu gis benn kaar bu taxaw mu ne xaaral ma dugg ci kaar bi xaaral ma dugg ci kaar bi saafu wante ak waa kaar bi waa kaar bi foogoon ne yellul ci ñoom man ma dugg seen oto dinaa leen wan ne leen man kenn laa ci yéen dañoo bëgg a ànd ñu ñëpp ñi liggéey kon amul oto bii laa war a yéeg wala oto bee laa war a yéeg kon exemple bi mu njëkk joxe tey mooy ci bis bi la dugg ànd ak waa bis bi yëpp ñëw tey ba moom ak rakkam loolu misaal gënut koo mag ñëw fii ci Taïba ànd ak rakkam gi nga xam ne moo ko présenté ci Dakar waaye tamit mooy président Ansaruddin international muy Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass ànd ak rakkam Cheikh Mouhamad al Khalifa Ibrahim Niass ànd ak rakkam Cheikh Mouhamadul Mahdi. Ibrahim Niass mi doon wax léegi ci wàllu njëmbat garab yi ci barab yooyu noonu mu tudd ci Kaolack nga xam ne lépp dafay nekk njëriñ bu dellu ci doomu aadama waaye tamit mi ngi ànd ak rakkam Cheikh Mouhamadul Qarachi honorable député mi nga xam ne tamit membre la ci mbootaay googu nga xam ne ñooy borom xam-xami Afrique yi waaye tamit ñu ngi ànd ak rakkam Cheikh Mouhamadul Mounhamina mi nga xam ne mooy directeur institut islamique Alhaji Ibrahim ñas waaye tamit mooy président Ansaruddin national gis nañ léegi tamit rakkam di Cheikh Aboubacar ñas mi nga xam ne mm, teew na léegi nii jiite mouvement Shabab al Fayda waaye tamit sëriñ bi fekk na fi ay mbokkam ay rakkam dañ ci jiital. ki nga xamne moy khalifa cheikh Serigne mbay di Seydi cheikh el Mahi ابن الشيخ سرين باي ابن الشيخ الحاج عبد الله واي تميد ميغي اندك رقم سيد الحاج محمد زينب نيغي دند اك سين مبوك سين mbokk سيدي ابو بكر ابن سيدي علي سيسي موم تميد ني گن كو koo سي باي مبي سيسي تيونا سي جوتاي بي مولم bi الحاج عبد الله نياس ميغا mi nga xam ne buñ tuddee Taïba danañ teew nañ ànd ak sëriñ bi mboolem njaboot ci cheikh ibrahim doomi alxalifa mawlana cheikh alhaaj abdallah Niass teew nañ doomi alxalifa mawlana cheikh alhaaj ahmed ibrahim ñas teew nañ doomi khalifa maulana Cheikh Tidiane Niass teew nañ seeni rak tamit teew nañ ak seeni Dom yu góor ak yu jigéen waaye danañ tudd ci jigen ñi sayyida Nafisa binti Cheikh Ibrahim Niass teew na ak sayyida Mariem binti Cheikh Ibrahim Niass ñi gën ko xam ci Mariem US mom tamit teew na serigne bi bokku na ci ñuko gungé gunge ci convoi bi euh, Serigne mbou mi nga xamne mo jité chambre de commerce mooy DG CCBM moom wax na doomi sëriñ bi Mouhamadul Moustapha ibn Cheikh Mouhamadul Mahi ne liggéey bi sëriñ bi bugg a def lépp loo xam ne aju na ci wala boog chambre de commerce dana gunge sëriñ bi ci liggéey bii nii nga xam ne moom la pare pour def ko fii nii ci Taïba seen moom sëriñ boobu jël na engagement ne dana accompagner sëriñ bi ci loolu sëriñ bi mi ngi ànd ak. Euh, doomam lu nu ko mën a tuddee muy Seyid Mouhamed Ndiaye Rahma moom tamit wax na ne pare na pour def lu yaatoo yaatoo yaatu ci liggéey bi sëriñ bi mi ngi ànd ak rakkam Pape Mahmoud Niass doomi Baye Mahmoud moom tamit teew na léegi nii lañ ma jox micro bi sóoru ma woon ne damay wax képp koo xam ne dégguma la mën naa am dinaa la dabaatal ci biir wax ji waaye daal délégation bi ñëw nañ teew ànd ak sëriñ bi bu fekkente ne euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñëw fii ci tayba ñaseen tayba gi nga xam ne bàyyi ñaanoon na wax la daa xawaalee taybatan fal tatruda kulla shururin abadan wa sarmada tayba ak li ko wër yàlla nga fi dàq bépp hay abadan dapet bu fekkente ne ñëw nañ fii ki nga xam ne moo ñu tatagal fii ci dëkk bi mooy président communauté rurale bi di suñu nijaay Seyid Habib ñas mi nga xam ne mi ngi nii toog dend ak Seydil Bachir ibn Maulana al Khalifa Cheikh Al Hadj Abdallah Niass kon ci euh, kanam tuuti incha allah danañ am leneen lu ñu leen gën a leeralal. ah tànnee fi tey ba yëpp teew nañ. borom dëkk teew na imaam jumaa ji teew na mbooleem tànnee fii fa tabaarakallah ñoom ñëpp teew nañ kan desul ko ñu delloo micro bi incha allah taalaa ba waa tay bay waxee ba pare ñu jëlaat ko marhaban jëf sëriñ bi léegi dañuy jàll rek comme niñ ko waxee woon ci alaaji muudu ñas imaam ci Taïba Niassène nga xam ne mooy wax ci turu Taïba Niassène yëpp wante daal sëriñ bi daal pour ñu ubbi xol yi rek ñu départ ci waxtaan wi rek ubbi xol yëpp mooy daal Taïba Niassène moom sëriñ bi wax na léegi ne ñi nga ñi ànd ak yow ci combat bi waaye Taïba Niassène kulluhum ak commune bi soldaar lañ yëpp tey yoo xam ne ci sa gannaaw la ñuy topp ci combat boobu. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad ala alihi wa ashabi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu sëriñ bi ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndal ñu jógee Medina rakk yi ak taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Taïba seen di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ ñi nga xam ne moo dox suñu diggante ak na ngeen taaj ko fii muy léppi Taïba te nekk na muy Cheikh Ibrahima Alaaji Abdoulaye ñi ngi nuyu tamit ci turu borom dëkk mbay hummi ñi ngi nuyu ci tilu ci turu kilifaay Taïba yëpp ñu nekk ci jàkka ji nuwaab yi ak maamum yi ak dëkk bi yëpp rawatina nag xale yi nga xam ne lii dajale fi nit ñi ñoom la gën a amal intérêt te ñoo koy suuxat sëriñ bi ñu ngi lay dellu di la nuyu di la yëgal ne waa Taïba Niassène yëpp ñu ngi ci sa gannaaw lii nga xam ne moo la fi tax a ñëw ci procès yii nga xam ne mooy tool baay ñi ngi lay xamal ne di beesal suñu àndoo ak yow gannaaw buñ beesalee jébbaloog taalibe yi yëpp gannaaw bu benn benn ñëwee te Medina jaayante ak yow ñi ngi mottali li des ci Taïba yëpp seen ak jaayante ci suñu kàddu ñëpp jaayante nañ ak yow nekk ci sa gannaaw ci loo bëgg loo joxoñ ni mag ñi àndee ak Cheikh Ibrahim ñu dajee fii ci xàll bi gor tool yi Sering bi ñew ñu gorol ko tol mu gis gis yo gis gis yu gudd yo xamne ne ñu bari gisun ko won am ñuko gis jox ko seeni tol, mu titre foncier ko ngir ar souf ci lim ci mom ak lim ci yeb yëpp xàmmeewu len ndax bam fi jógee ba léegi ba léegi domi nek fi wa Taïba ñoy bay lepp lum gorolon bopam ak liñ goroloon son bop kon deureum bi gennur kon ñu ngi lay beesalal ne bi ñuy def loolu am na ñenn ñoo xam ne doon nañu wax di ko jëmale ci taalibe yi di dox digga moom ak sëriñ bi am na ci yenn ci maam yoo xam ne danañ ci cité ñenn ci li ñu nettali muy maam ama roqi ak maam Matar ma jigéen dañ noon suñu alaaji Ibrahima laajoon suñu rooy yi sax ñu jox ko ko loolu ñi ko defoon ba léegi ñi ngi fi alhamdulilah. bi gis-gisam Cheikh Ibrahima bi dëppoo ak gis-gisam mag ñi ñuy dund ci loolu ba léegi ñooy bay tool yi Cheikh Mahi Ibrahim ñëw di def projet boo xam ne ci tool yooyu la jëm tool yi du lu ñuy séddoo du lu ñuy saamoo ndax ci lañuy bay te ci lañ dëkk ñu wéyal loolu kon li bay defoon dara génn ci taalibe yi dara génn ci ba maa ngi lay xamal ne ba ak li ko wër yépp ñi ngi jaayanteeg yow ci loolu di wéyal loolu mag ñi jaayante woon ak Cheikh Ibrahim sëriñ bi ñi ngi wéy di ko jaayante ak yow ànd ak gërëm ko ci xol ak ci xel ngir yaakaar fi ñu jëm Taïba nag lu ne mën nañ koo wax ba waaye Taïba duñ wax lépp lu xew ci Taïba rek soo leen sante ñoom dañuy jëf jëf lañ mënee mënuñu wax te lii wane na ko lii xale yu sol nii ci tiser yii nga xam ne publicité la dañoo wax ci li nga wax ne wéy te ñoom ñooy suñuy ëllëg ndax tool yi ci maam yi lañ ko bàyyi jëlee woon ñu jëlee ko ci bàyyi ñoom ñu war koo jëlee ci ñun comme ñoom ñëpp ne nañu wéy sëñ bi daal ñi ngi ci sa gannaaw tay baangoog yow lañuy déglu lépp loo joxoñ ak loo bëgg ñu ngi ñaan yàlla yàlla na la ci yàlla defal sa càkkutéef defal ko mbooleem jullit yi lii moo doon suñuy kàddu yi nga moom lañ koy sànni ci tuuru Taïba yëpp ànd ak genn kàddu gi la waaye Taïba yëpp ay wax ndax gërëm nañ lii may wax asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah mbokk téléspectateur Kossy TV loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la kooku yëkkati di leen baax a baax di leen jërëjëf imam kàddu yi matale na liggéey liggéey bi léegi kon dañuy jàll ci mbokk seen mbokk Jaxate Ñas mi nga xam ne moom la xale yi wax ne en direct Kossy TV incha allah na leen waxal li nga xam ne moom la sëriñ bi indil xale yi ndax lii xale yi la ñuy ndax liggey bi xalé yi la ñeel kon Amath Diakhaté la ñuy jox. mbokku téléspectateur yi ñu ngi non di jox ki nga xamante ne mooy Amath pour mu wax si cadeau ndaw ñi ngeen di ko and ak sen télévision ci TV fi ci tay bañ sen ci projet bu Khalifa Sahibou Fadilatou Tidiane yëkëti Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. caméra bi. di jiital ci nuyoo bi sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér képp pour ko ne wax amin yàlla nga fi yàgg te wér. di nuyu ay rakam di nuyu borom dëkk di nuyu imam di nuyu maire commune bi. ci turu ndawi commune Taïba Niassène dañuy wax ne sëriñ bi ndawi Taïba Niassène nee nañu waaw ci projet toolu baay ngir lan ndax xam nañ ne histoire wan nañu ne taalibe bu nangu topp sëriñam lépp njariñ imaam Modou Niass wax na ci tuuti ni sunuy maam topé won sëriñ bi ba limu jur ci walu mbay mu jural ñuko ndax tay ba tay pôle agricole la képp ku bëgg mbay di nga def ba référence te lolu dara waralu ko ludul ci ay années 50 51 le Cheikh al Islam El ibrahim Ibrahima Niass teel comprendre lan moy développement créer li ñi wax coopérative organiser baykat waaye moderniser agriculture ca yooyu at andi fi ay tracteur waaye diversifier agriculture ne lépp lu ngeen gis may bay na ngeen ko bay ñu toog ba ay année mille ñu soog di ko wax kon kooku teel naa comprendre lan mooy mbay kon maam yee ko toppoon loola jur ko waaye dem bay tey ñu toog ñun ñëpp di géwént tey bépp baykat bu fi taxaw sa gént mooy lan mooy fexe ba maîtriser ndox maanaam ndox bala sa tool nga man di bay noor ak nawet mooy géntu bépp baykat tey sëriñ bi xëy firil ñu ko nañu maa ngi leen di andil projet tool baay ngeen di bay noor di bay nawet waaye muy junj boo xam ne alaaji Abdoulaye Niass al Khalifa junjoon na ko def ko fii ci penku dëkk bi te résultat ba ñun ñëpp gisoon nañ ko ndax amoon nañ pompiteer ba ca la tay ba doxee bañ pompiteer kon kay bu ñu sëriñ bi andilee projet bu toll noonu nga xam ne ñun ay ndaw ñoo waroon a xalaat bind yot ko ne ko jàppale ñu ci projet bii mu firil ñu seen jëwante nañu bind naa ab projet présenté leen ko moo tax ñu ne waaw adhéré wu nañ ci projet bi à 100 pour cent à l'unanimité kenn desul loolu mooy li am d'autant plus la ca tege mooy ci jamono ji ñuy waxee emploi des jeunes état diko wax ñeneen di wax serigne bi andi fi projet bo xamne lu mu neew neew dina employer 200 et quelques personnes way way wa Mérina duñ fi ñew di liggéey ñun rek ñoom la ñeel tay baag liko wër comme nako bay waxe ci ca kon bi kon la ma serigne bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool tëwér nak géwénti gum feri ku ne bëggon nako kon ñun la ko defal yalla dogal na ba gi am ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ ci ndaw ñi lu mu néew néew fukki goneen fi yoo xam ne am nañ diplôme yoo xam ne ay ingénieur lañ ci wàllu agricole te ñu ngi fii te mën nañoo téye projet boobu gàddu ko boobu dem fa nga xam ne fa la war a dem moo tax projet bi dañ ci adhéré wu à cent pour cent kenn desul li ñuy wax kay mooy ah ñépp koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci tund wi nekk ci gox bi dañu bëgg tool boobu mu nekk modèle nekk benn tool modèle école boo xam ne dañ fiy liggéeyee di fi jariñu naam waaye di fi royee xam ne jamono ji fi mu toll ak changement climatique yi fi ñu toll mbay mi mënutul demee mu doon demee kon école la boo xam ne dañ ciy jàngee ni ñuy soppalee mbay mi ngir suuf si jariñ ñu ci mën a gudd waaye daal au nom de la jeunesse ñu ngi gërëm di sant di ñaanal sëriñ bi moo ki rakkam ñu yàgg fi lool te ñu ngi jéggulu nag ndax wax ci kanam kilifa yi yombut di jéggulu lu ci njumte rek ñun la wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu macha allah kooku mu wax ci kàddu ndaw ñi wax na rek ne si gàttal mooy lépp bu nekk tey ba ñu seen rek ànd nga si tey si projet bi xalifa du saahibul faydatu tijaani yëkkati. jërëjëf yaakaar naa ñu ànd nañ ci de ndax li nga liggéey bi rek ndaw ñëpp ànd nañ ci macha allah kàddu gi le maire maire de la commune de Taïba Niassène El Hadj Mamadou Habib Niass. monsieur le maire lañuy bayé kaddu gi mom mi nga xamné mom moy mooy euh, dëkk bi di ki nga xamantene kilifa dëkk bi yëpp mom lañ yaakar. monsieur le maire sëriñ bi mu ne comme ordre protocolaire bi bala nga jël parole dafa sàkku ñu jox parole Mohamed Ndiaye Rahma Moussa sànni kaddu bala nga jël. Kok moy Mohamed Ndiaye Rahma kaddu gi lolu Khalifa bee ko jox pour mu yëkëti ay kaddu pour joxé ko ci bës bi nga xamantene ne ñëw na pour. teg si loxoom waaye gi ne ngeen bokk ci liggéey bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sayyidi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. maa ngi lay nuyu bu baax. di la ziar. di ziar mbooleem njabootu Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu gi fi nekk ñëpp. di sant yàlla bu baax ci jotaayu tey bi. nga xam ne comme ni ko. Mawlaaya Cheikh Abdoul Malick waxee léegi sëriñ bi daana nàndal nit ñi ci xam-xam waaye dafa jóg tey ñëw pour nàndal nit ñi ci liggéey mu nekk bëccëg bu am solo mboolem njabootu Mawlaana Cheikh Ibrahim gi yépp bàyyi lépp luñ doon def ànd ak moom gunge si ko fii mu ñëw pour dekkal mbay mi nga xam ne moo nekkoon liggéeyu Mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñun ñëpp tam ñu ànd tënku ci loolu pour ñëw jàppale ko si yaakaar naa ku déglu président Macky Sall barki bu bi mu ñëwee wax na ko ne mboolem projet yi nga xam ne simm nga ko ci mbay dinaa ci ànd ak yow loolu ñun mën nañ cee wax lu bari parce que président wax nañu ne li nga xam ne mooy machine yi nga xam ne daf ko war a liggéeyee nañu taxaw mboole seen ñun ñi nekk ci biir cabinet bi yëpp pour fexe loolu yemb ba njëkk si ay loxoom wax na itam ne mboole seen service yi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi ca ñu xam ne dañ ko war a jàppale ci projet boobu joxe na barki démb bi mu fi jóge fii joxe na ndigal pour ñëpp bu ànd ak sëriñ bi ba lim bëgg a def mu def ko jot naa ak sañu Mahdi mi nga xam ne doon na ci liggéey ak ñenn ci njaboot gi laaj ko li nga xam ne mooy tool bi mu xamal ñu ne ñu tool bi dem na ci quatre cent et quelques hectares waaye jàpp nañ ne sëriñ bi dana tàmbale ci deux cent hectares ñun en tant que ay nongoy Macky Sall laata moom muy ñëw deux cent hectares yooyu incha allahu fas yéene naa lépp li nga xam ne lu mu war a bay la incha allah dinaa ko dox jiwu bi bu soobee yàlla dinañ taxawit incha allah ba lépp li nga xam ne président Macky Sall wax na ko. ñu dimbalee ko ci service am yi ba loolu yépp ñëw yemb ci moom bu fekkee nawet bi jeex na itam wax nañ fi léegi ne dana tàmbali pour jéem di bay noor ak nawet mbay moomu nga xam ne ñu ngi ko jëmee ci noor daañu liggéey ak moom ak service am yi ba bu nawet bi wàcc incha allah dana fekk matukaay ñu war a jël pour liggéey ci noor bi ak moom ci tool yooyu loolu tam incha daa daañu taxaw ci lépp luy yombal ndox walla lépp luy yembal jiwu. pour mu bay ci noor bi incha allah loolu tamit loxol président dina ci jiitu waaye ñun en tant doom en tant que taalibe daa ñi taxaw incha allah pour loolu tam buñ ci yeggee yi def ci lépp lu ñu war a def maa ngi sant mboolem njabootu sëriñ bi ànd ak moom yëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah kooku mooy Mor Ndiaye Rahma di yor kaddu mouvement Rahma kaddu jërëjëf am na solo président xalifa saaxibu faydatu tijaan yam moo ko joxal boppam directement kàddu gi kon euh, dañuy bàyyiwaat rek fan la di yeb buat mi bi tey. moom it mu sànni ci ay kàddu monsieur le président. yeneen koy seetaan si seen TV mon nyai rahma gannaaw bu ñu yëkkatee kàddu gi sëriñ Mboup mooy ñëw mi nga xam ne moom yàgg na si waar wi waaye yàgg si liggéey bi nga xam ne nyai ke agriculture ñu walam mbay lum xam la kon dañ koy bayyi rek mom tamit euh, mu jël ay cadeau joxe ko fi nga moy ci TV ba assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi am mbégte ñëwaat fi ci tay ñasen khalifatul am sëriñ yi ñas mi nga xam ne ni ñëpp xam nañ ne lu muy xëy suba ngoon lu amal njariñ doomu aadama rek la kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi bu amaa maa yanfa'u naas fa yamkus fil ardi kon yàlla na nga sax ci kaw suuf ba ilaa jëli mu sàmmal sa jëf sax ko ko ci sax ko ci fii tey ba ña seen yaakaar naa ñëw naa fi ay yoon ànd ak ñëw fi seet si eh, Ahmed Diakhaté ñas mi ak maire bi te li ñu fi indi woon rek mooy mbiru mbay ay jàppale agriculture gannaaw bi liggéey nañ ci ay yoon yoon ak ñoom ci loo xam ne nii ci la nekk kon lii sëñ bi di def ñun ñi jàppale ndax ñun bu ñu dénkee chambre de commerce d'industrie et d'agriculture te ma wax keroog ne Sénégal mënul développer agriculture jiituwu ci ndax keroog dama wax ne euh, Sénégal ci lu néew mën na créer cinq millions de emplois ma liir projet Serigne bi léegi ma gis ne bi ma ko évaluer li ciy liggéey rek mën na lu mat mille personnes direct waxantuma la ak indirect bi ak ña koy jaaye dugguma ci koy jaay dugguma ci ña koy ñay def leneen ak leneen imaginel tey jii bu fekkoon tey ah, kër diine yépp jël nañ projet bii multiplier ko ba mu am lu mat 1000 projet fii ci ah Sénégal kenn dutu waxati projet emploi kenn dutu waxati lu ñu dundee kon sëriñ bi sa méewér bi nga am yal na ko yàlla àggalee yal na ko yàlla àggalee ah, li mu mën njaay raxma wax lu rafet la président de la république na jàpp ci projet yii projet yii mooy téye nit ñi fa ñu nekk ñun nag chambre de commerce suñu foqat ci ngeen ñu def lépp loo xam ne nii suñu waru gar la ci loolu buñ ci àggee nañ ñu ko wax danañ ko def xam naa ne li ci ëpp solo te loolu lay wax toujours baykat nañ fexe ba nga xam ne nii balaa bayam ma ñor ñu jaayal ko ko nga xam ne nii bu paree mu jot xaalisam incha allah buñ xamee lan lañ ciy produire ñun danañ toog ak ñi ko yor ñu fexe commencé ko présenté ba nga xam ni incha allah bu ñoree rek ñu jot seen xaalis du am benn jafe-jafe pour mën a jiwaat allah kon sëriñ bi jërëjëf yal na la yàlla fay ni ko Abdoul Malick waxe léegi wa man wa man ahyaha fa ka annama ahya an-naasa jami'an dundal benn bakkan dafa rëy te mbay moom. mooy commerce bi gën a am solo commencé li habbatin an batat sab'a sanabila fi kulli sanbalatin mi'atu habbatin wallahu yudaafi liman yasha yal na ko yàlla naatal yal na ko yàlla def xéewal yal na ko yàlla barkeel ba nga xam ne nii ah, exemple bi dana tas ci Sénégal tas ci Afrique comme ni ko ah, ah, cheikhul islam waxe woon ne lu mu am rek Kaolack moko gënal té Kaolack moy région bi yëpp jërë ngeen jëf alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eh, kooku mooy président Serigne Mboup borom sambu de commerce kooku mom su waxé rek xamné limi wax mom lu man na té lu mu xam la ndaxte si loolu la gëpp kon ni bayé rek ba tay kàddu gi mu bi président Serigne bu wax na légui ba amat jaxata ñass mi doon wax légui lolu liko sabab kii di maire bi di Mouhamadou Habib Niass bi mu demee ba ci biir dafa gis ne ndaw ñi am na taxawaay boo dañ ko war taxaw parce que ëllëg ndaw ñi dañ leen ci soxla ñu mel ni Amath Diakhaté ñooñu mu jël leen tàggat leen moo leen tàggatal boppam Amath Diakhaté mi doon wax mooy président CLCOP bu commune bu Taïba cadre local de concertation des organisations de producteurs moom mii di ndaw doon wax mooy président bi créé na lu mat cent cinquante groupement yoo xam ne am nañ ay reconnaissance juridique mu jaaree ko sembre de commerce ndax tey ci chambre de commerce boobu ñi ñuy wax ambassadeur moom ci la bokk te loolu maire moo ko liggéey kon monsieur le maire ñu mu jox kàddu gi. Habib Niass euh, mu jox monsieur le maire Mamadou Habib Niass mi nga xam ne moo yor wàllu kaddu Taïba Niassène fii nii ci wàllu mairie bi Eh, di ko ndokel baax baax ñu baye ko ak kaddu gi mom mi nga mom la ndaw yépp ak xalé yi bootu ci gannaaw mu jiite meeru Taïba Niassène bi. alhamdulilah diko ci ko ci cause TV. sante yalla julli ci yonent bi. Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam. sëriñ bi ñi ngi lay nuyu. waye ba lañuy nuyu sax dañuy ndokel suñu bop ndokel wa communauté ba yépp

ñaari taxaw ñaari tànk lay taxawee tanku état ak tanku population tanku état bi bu monsieur le préfet togué madame le sous-préfet tok ñom ñoy yoré cadre gogu cadre population bi njabot gi la bu sëriñ bi togué danaka amu fi cadre moy bërem dëkk bi nak kon damay sakku sen ndigal ñom ñeb rek pour mana jotal li may jotal kon ci kaw lolu ma ngi nuyu bi ak rakam top mbay ak euh, sen dom yi and ak ñom yeb nga xamne tay ji ño taral jotaay di nuyu monsieur le sous-préfet Maguette Ndiaye di nuyu madame le sous-préfet Ma di nuyu autorité and ak ñom yeb honorable euh, Mohamed Ndiaye Rahma l'ambassadeur donc Mohamed Ndiaye le président de la chambre de commerce Serigne Bou ak Yep, chef de village yi jigéen ñi goor ñi presse bi képp ki fi tatagal conseil municipal bu Taïba di leen dalal jàmm ci seen dëkk eh, wax leen eh, bisimilah wax nañ ko nag sëriñ bi sa ñëw fii yàgg nañ ko fuuglu may jéggulu nag ci rëq-rëq yi am ci cortège bi ci ci bi ñuy ñëw mbiram gone la rekk dañoo xër pour wan la lii nga yëkkati jën si ñoom engagement bi ak détermination biñ ci am loolu rek moo indi lu war a mat ñaari téeméeri wala jakarta ay fas lépp donc dox ba dingiraay toog ne dañuy tertu sëriñ bi loolu rek moo indi woon heure bi waaye du lenn ñuy jéggulu ci heure yi mbiram gone la waaye lépp rek wan la lii nga yëkkati seen mbir la ca euh, pare nañ pour def ko seen mbir man nag sama bopp nag maa ko gën a def sama mbir parce que dama yàgg wax fii temps bu ma dajalee nit ñi population li ma leen di wax dama ne boo ñëwee ci commune Taïba Niassène 108 kilomètres carrés la 22 villages dong la mais 35 000 habitants ñoo fi nekk bi maanaam suuf si dafa xat fi mu nekk kër goo dem buñ amee.

xalaat ak projet lu yem ni li nga indi nii moo ko moo koy moo koy koy joxe moo tax keroog bi nga koy yëkkatee a ah, teg ci ko teg sa teg ci loxo sunu jarbaat mu koy gëstu booba rek lañ takkaayu ñun ànd ak moom xam ne lii nga jëkkati ñun pratiquement sunu géwant eh, firi na ko comme ni ko Amath Diakhaté waxee moo tax tey ci tey joxoon nañ la suñu engagement joxoon nañ la suñu jébbalu pour comme niñ ko defee woon ak El Hadj Abdoulaye Al pour nekk ci sa ron pour jàppale la parce que lii daanaka ñun ngay jàppale. am na ko ko wax Amar wax na ko lii nga fi indi tey du waa Médina ñoo koy jëfandikoo waa Taïba la waa ba ñoo koy jëfandikoo seen njëriñ la kese. ci ñun fi ñu toll ci commune bi moy développement économique local manam bo xolé ci commune Taïba Niassène li ñuy wax accès aux services sociaux de base manam ndox ndox dëkk bo dem amna fa 22 villages yépp ñi ngi xel di robinet électricité dëkk yépp ñaar ñoo ci def chantier yi ñu ngi taxaw donc. foofu accès universel yegg si nañ fa ñu gis na nag ñaar yooyu bu amee la ca des mooy création de richesse maanaam fexe ba nit ñi nekk ci gox bi am lu ñuy yëngatu mën a am lu ñu ja sange seen sutura lool nag euh, dara gënu koo pertinent dara gënu koo yell dara gënu ko nekk njariñu askan yi fii ci Taïba Niassène ak li ko wër lu du projet bii nga yëngatu nga yëkkati moo tax comme ni ma ko waxee jaayante nañ tey ni ki tey comme nañ ko defee woon pour ànd ak yow fexe ba euh, projet boobu yàlla en tout cas euh, def ci liñ ci nisër ca mooy mu nekk njëriñ kese ñeel askan wi. loolu daal lañ amoon lu ñuy wax euh, pour bañ a guddal sant nañ gërëm la di la ñaanal yàlla yaak say rakk yëpp yàlla may leen fan wu gudd ak wér ñu ñaan nga jottali suñu nuyoo al imam Cheikh Tidiane Ali Cissé. ak euh, porte parole Cheikh Mahi Cissé ak euh, njabootu euh, baañis gi nekk ci pee bi yëpp loolu la ñu waxoon amoon lu ñu wax di gërëm di sant di gërëm waa presse bi di gërëm jeunesse bi seen mobilisation waaye comme ni ma ko waxee loolu yëpp pour wan la ne ñi ngi ci yow ñi ngi ci sa gannaaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad macha allah kooku mooy maire monsieur Habib Niass ci kaddu yi am solo yooyu mu yëkkati nekk kaddu yoo xamante ne ni kaddu yu kilifa la waaye mbégte ak contentement gi la am kon ñu bàyyi leen ak kilifa gi. rek mu wéyal imaam Mourou mu ne mi ngi lay wax ne Oustaz baay Mar mi ngi fi yebaloon démb mu jiitu su fi kàddu yi nga ko waxoon jottali na ko ñoo bokk julli jumaa jottali na ay kàddu yoo ko yónni woon léegi kon dañuy delloo kàddu gi Cheikh Abdou Malick ñas mu introduire sëriñ bi bu ko defee jotaay bi continue ñi ngi sante di gërëm mbooleem ñi fi yëkëti kaddu baax na ñi fi yëkëti kaddu ñëpp ñi ngi leen sante di leen gërëm monsieur le maire bu tayba Habib Nias maire commune bu waaye tamit di wax sëriñ bi ne bokk na ci ñi fi teew Cheikh Ibrahim doomi Cheikh Ousmane Fatim mi nga xam ne mi ngi liggéey liggéey bu yaatu fii ci ba mi ngi bàyyi ci Sénégal ci barab yu fasanti ko waaye lépp lum góob dana ko indi ba fii ci usines yi nekk fii ñi defar ay tigadege defar dëwlin defar leneen lu dul loolu waaye tamit monsieur Habib Thiam mi nga xam ne moom it Taïba la tànn yaroo ci ron alaaji Abdoulaye Niass xam mbay xam njëriñu mbay tànn ba mu nekk na mooy basam bi nga xam ne fii lay liggéeyee moom it mu ngi liggéey lu yaatu ci wàll woowu noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu defal leen tawfiq ak najaax di wax sëriñ bi ne ko bokk na ci ñi teew gunge la Cheikh Ibrahim Fall doomi euh, Baye Ibra Fall tey daal dafa fàttali nit ñi démb ndax kilifa yu mag yooyu àndoon ak Ibrahim Niass radiallahu anhu di jàppalante ak moom ci oote bi waaye tamit di jàppalante ak moom ci liggéey bi ñooñu seen njaboot ñoom ñoo la gunge fii ba Taïba seen kon dañuy am yaakaar gu tàbbi ci ne incha liggéey bi fa nga bëgg mu àgg incha allah yàlla dana ko yóbbu lu kawe su njortu ñu ngi gërëm Mamadou Ndiaye Rahma ci engagement yi mu jël fii nii ci kanami sëriñ bi ak tamit yi nga xam ne wax na ko ci turu président Macky Sall waaye tamit ñu ngi gërëm Serigne Mbuub moom tamit ci engagement yi mu jël di ñaan yàlla lépp yàlla na ko yàlla mottali ci jàmm ak salaam kon nag léegi kàddu gi dañ koy jëmale ci Maulana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass mi nga xam ne wax nañ ne jàngalekat la depuis bu yàgg yàgg professeur la gëstukat la. ñetti làkk yi daf koy wax ni mu ko buggee muy araab ak anglais ak français jàng alquran mën ko lool mokkal ko ba tey jii nii mu continuer di ko mokkal mën hadis mën siiram mën langue araab waaye tamit nekk philosophie dama ko tàggu ñeenti at ci gannaaw na ko dama dem damay dem Angleterre mu yóbbante ma benn livre ne ma boo demee nga seetal ma ko foofu parce que yaakaar naa duñ ko jaay ci réewi arab yi ma dem di ko gëstu livre bi xaw a jafe sax foofu ma gis benn taalibe boo xam ne waa Nigéria la ma wax ko ko mu ne ma léegi daal comme ni jafe na nii dañ koy commandé waaye man mën naa la koo télécharger ci internet bi ñi imprimer ko nga yóbbaale ko bi ma ubbee livre bi di xool ba sonn awma dara lu ma dégg ci li téere bi di wax ma ne sëñ bi daal man façon philosophie yi muy jàng daal xaw ma lan la koy doyee ci fan yu néew rek gannaaw loolu may dox ba gis fu bàyyi bind Seydi Ali Cissé benn benn diplôme ne oustaz la ci fiqh oustaz la ci usul diin oustaz la tamit ci philosophie ma ne ah kon sëñ bi kon li muy def nii moo ko gën a xam kon nag kookul moo ñëw tey pour wat benen xarkanam muy xarkam liggey yoonu yokkute ak jëriñ doomu adama ci walu mbay ndax bayam daan na wax ne dem na ci ay rew yo xamne buñ amone suuf si ngeen am danañ ko bay yeb bam jeex daan nañu wax tamit ne lepp lo len gis ma di koy bay na ngeen ko bay and ak man kon mom sëriñ la bo xamantene ni buguta am dara talibé mi ñak ko am way lepp lu am daf ko bëgg a kon sëriñ bi ñew na tay ba ña tay pour jox waa Taïba cër bi nga xam ne ñoo ko moom pour wax leen na leen parewuma jël dara di ci xuus te du ne dama ñëw ba ba ma seddoo ak yéen xalaat bi bu boobaa nag ñu àndandoor ñu ñëpp kon dem liggéeyi kon yàlla yàlla def tawfiq idan alkalima li mawlana alxalifa cheikh Mouhamad al Mahi inchallah kooku mooy Cheikh kon ñu bàyyee kaddu gi xalifatu saahibul faydatu tijaaniya cheikh Mouhamad al Mahi Cheikh Ibrahima Niass rek mu wëyal uh, tërëcc ak yëbante ak ndigal gi nga xam ne moom la andil waa Taïba Niassène ci tukki mu am solo mi nga xam ne dafa bàyyi biis yi dafa bàyyi oto yi bàyyi lépp dugg biis rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi sëriñ asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatoo. nuyu mbokk yu tedd yi toog fii yëpp ci mbaar mi. mu ne mu ngi nuyu mbokk yu tedd yi toog fii yëpp ci mbaar mi. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. seen jotaay bu tedd bi. seen jotaay bu tedd bii ngeen dajee. seen itte yu kawe yi. seen itte yu kawe yi. seen yéene yu rafet yi ñu am ko. seen yéene yu rafet yii. ñu xam ko. ci bokk ci nit ñi nga xam ne. bokk ci nit ñi nga xam ne. seen dund seen dundi maam ak seen dundi baay mooy dañuy dolli nit ñi. seen dundi ak seen dundi baay mooy dañuy dolli nit ñi. ci lañ bëgg a taxaw ñu ni tam. ci lañ bëgg a taxaw ñu ni tam. jéem ndax mën nañoo dolli ci nit ñi dara. jéem ndax mën nañoo dolli ci nit ñi dara. doomi baay yëpp a ngi nii toog. doomi baay yëpp a ngi nii toog. yu góor yeeg yu jigéen ñi. yu góor yeeg yu jigéen ñi. wax nañ ne suuf sàngoog lu ngeen ci bëgg a def d'accord nañ ci. wax ne suuf sàngoog lu ngeen ci bëgg a def d'accord nañu ci. waaye lu amal njëriñ nit ñi nag. waaye lu amal njëriñ nit ñi nag. bu ngeen ko ci defee. bu ngeen ko ci defee. waxuñ d'accord sax mais dañ ciy ànd ak yéen. waxuñ d'accord rek yem ca. waaye dañ ciy ànd ak yéen far. ngir. ngir tabax tabax. loo xam ne. loo xam ne. dëgg-dëgg nit war na koo tabax. dëgg-dëgg nit war na koo tabax. nit war naa tabax lu ma soxla ci àdduna lan la. nit war naa tabax lu ma soxla ci àdduna lan la. war naa laaj boppam ne lu ma soxla ci àddina lan la. war naa laaj boppam ne lu ma soxla ci àddina lan la it. su fekkee romb na. su fekkee ne romb na. yàlla may na ko gëm na yàlla. yàlla may na ko te gëm na yàlla. yàlla may na ko mu yow daal doo dégg. yàlla ma su fekkee yàlla may na ko mu gëm. su fekkee ne yàlla may na ko ak ngëm. mu nekk commencement boo xam ne. mu nekk. tàmbali mbaay boo xam ne. tàmbale mbaay boo xam ne. tàmbali mbaay bu dëgër la. tàmbale mbaay bu dëgër la. lim ciy teg. lim ciy teg. mooy laay ji Abdou Malick jàng sànq. mooy laay ji Abdou Malick jàng sànq. wa maa jaalnaahum jasadan laa yaakuluuna taam. bindu ma leen rek ñuy ay yaram yoo xam ne. bindu ma leen rek ñuy ay yaram yoo xam ne. duñ lekk. duñ lekk. kon war nañoo lekk. boom war nañoo lekk. li ñuy lekk fu ñu koy jëlee. li ñuy lekk fu ñu koy jëlee. ci suñ kattan lay bàyyeekoo. ci suñ kattan lay bàyyeekoo. ak ci suñuy suuf. ak ci suñuy suuf. ñu moomal ko suñu bopp. ñu moomal ko suñuy bopp. waaye su fekkee dañ koy uti feneen. waaye su fekkee dañ koy uti feneen. duñu su dinañ lekk de waaye duñu suur. dinañ lekk waaye duñu suur. duñu suur bay desal sax. du duñu suur sax bay desal. bay mën a may keneen. bay mën a may keneen. su fekkee mën nañoo utal suñu bopp amal bopp. waaye su fekkee mën nañoo utal suñu bopp ba amal suñu bopp. su mën nañoo am lu nekk. su boobaa mën nañoo am lu nekk. am na suuf ci Sénégal suuf su bëree bëri. sëriñ bi ne Sénégal am na suuf su bëree bëree bari waaye bu nawet jotee ngay tukki ci dëkk bi. wa ci waaye bu nawet jotee nga dugg ci biir Sénégal. di nga gis lu tuuti la bay. di nga gis ay barab yu tuuti lañuy ñuy bay. yi ci des yépp àll lay doon. àll boobu alal alal rek la. te àll boobu ñuy bàyyi bañ koo bay alal rek la. alal alal la joo xam ne. alal la joo xam ne. yàlla nga ko fa denc muy xaar seeni borom. yàlla ko fa denc muy xaar seeni borom. waxtu wuñ jógee rek jot ko. waxtu wuñ jógee rek jot ko. moo nit war naa laaj boppam. moo nit war naa laaj boppam. loolu may dundee. ne lu may dundee. bëgg koo dundalee ñeneen. bëgg koo dundalee ñeneen. ndax suma bop rek la ci soxla. ndax suma bop rek la ci soxla. waaye soxla naa ci taarix itam. waaye soxla naa ci taarix itam. ndax taarix a ñëw. ndax taarix a ngi ñëw. ay dooma a ngi ñëw. ay dooma a ngi ñëw ci kanam. ay sët a ngi ñëw. ay sët a ngi ñëw. te ñom ñëpp bëgg nañ fe fekk. te ñom ñëpp bëgg nañ fe fekk ëlëk lo xamne lo xamne da fay wëyel seen dundu yomb leen. da fay wëyel seen dundu yomb leen. yomb leen. te loolu. te loolu. te loolu. yàlla nga ko teg ci loxo nit ne ko boo ko bëggee amal mu am. yàlla nga ko teg ci loxo nit ne ko boo ko bëggee amal mu am. ndax. ndax. lan lan. lépp lu la ciy àggale rek yàlla may na la ko. lépp lu la ciy àggale rek. yàlla may na la ko. yàlla may suuf. yàlla may na la suuf. yàlla may na la ndox. yàlla may na la ndox. may na la kattan. yàlla may na la kattan. may na la xel. may na la xel. yombalal na la. yombalal na la. sa yoonu liggéey àgg ci njëriñ. sa yoonu liggéey àgg ci njëriñ. bon nag ñu manqué ñun Sénégal. bon ñun sénégalais yi lu ñu manqué. ba lu nekk ñu dañ koy uti ci biti. ba lu nekk ñu ne dañ koy uti ci biti. te ñu koy fañ koy utee ji. te fañ koy utee ji. ñooña. ci seen suuf rek lañ ko amee. ci seen suuf rek lañu ko amee. bon lu tax ñun mënuñoo seet suñ suuf ndax mën nañoo jox. bon lu tax ñun mënuñoo seet suñ suuf ndax mën nañoo jox. lu nekk suñu suuf mën nañu koo jox. lu nekk suñu suuf mën nañu koo jox. su fekkee ut nañ ko. su fekkee ne ut nañ ko. te itam. moyens yi nga xam ne am nañ ko pour ak suñu suuf. moyens yi nga xam ne am nañ ko pour ak suñu suuf. mooy lan. mooy lan. Sénégal boo ko seetee ay ndaw ñoo ci ëpp. Sénégal boo ko seetee ay ndaw ñoo ci ëpp. ndaw moo am kattan. ndaw moo am kattan. ndaw moo am doole. ndaw moo am doole. ndaw moo am dogu. ndaw moo am dogu. su fekkee am nañ fu ñu leen jaarale. su fekkee am nañ fu ñu leen jaarale. ba ñu óolu ne seen suuf si mën na leen a jox. ba ñu óolu ne seen suuf si mën na leen a jox. bon dootuñ demati fenn di uti leneen. bon dootuñ demati fenn di fa uti koom-koom. bu boobaa dinañ dootuñ amati jot. bu boobaa dootuñ amati jot. poli dootuñu amati joti politique. dootuñu amati joti politique. mais dañuy am joti liggéey pour produire. waaye dañuy am joti liggéey. pour produire. parce que boo defee ren produire am. déwén nga def am. ndax boo defee ren produire am nga def déwén produire am. bon fàtte nga leneen lu dul loolu. bon fàtte nga leneen lu dul liggéey. bu boobaa ci ci liggéey rek ngay nekk. su boobaa ci liggéey rek ngay nekk. liggéey yooyu nag ñuy nekk. liggéey yooyu nag ñuy nekk. dinañ wax gouvernement. dinañ wax gouvernement. dafa farag ñii dafa farag ñii. dafa farag ñii dafa farag ñii. gouvernement farut ak kenn peuple am la faral. gouvernement farut ak kenn. peuple la fa peuple am la faral. kii yëngatu ci paie bi nag di di produire. kii yëngatu ci terre bi nag di produire. kooku la gën a mën a liggéey eh, la mën a gën a jëflanteet. kooka la gën a mën a jëflanteet. ku liggéeyu dara. ku liggéeyu dara. liggéeyoo dara. liggéeyoo dara doo xam dara. soxlawoo sa bopp gannaaw soxlawoo sa bopp kenn soxlawul. soxlawoo sa bopp. gannaaw soxla woo sa bopp kenn du la soxla. te mën nañoo def dara. te mën nañoo def dara. suñu réew li ñu ko mën a defal. suñu réew. nuñ ko mën a defaree. nuñ ko luñ ko mën a defar. luñ ko mën a defar. mën nañ koo defar lu nekk. mën nañ koo defar lu nekk. mën nañ koo defaral réew mu am alal. mën nañ koo defar muy réew mu am alal. mën nañ koo defar muy réew mu am nit ñu kawe. mën nañ koo defar muy réew mu am nit ñu kawe. mën nañ koo defar muy réew nit ñu am jom. mën nañ koo defar muy réew mu am nit ñu am jom. te du. nekkul te doonul loolu da nga koy créer mais da ngeen koy fàttali ndax loolu ci la seen i bàyyi nekkoon. te doonul ne loolu da koy créer muy lu bees waaye da leen koy fàttalil ndax ci la seeni i bàyyi nekkoon. ak seen i maam. ak seen maam. jàmbaar. jàmbaar. fit fit. kóllëre kóllëre. olu yàlla. olu yàlla. nangoo def lu nekk pour sàkku. nangoo def lu nekk pour sàkku. ngir sàkku. ngir sàkku. ba am. ba yàlla mi ko daan maye. yàlla mi ko daan maye. mooy yàlla mi koy mooy yàlla mi fi nekk léegi rek. mooy yàlla mi fi nekk léegi rek di jëflante ñun. yàlla mi ko daan maye. yàlla mi ñu ko daan may. yàlla mi ko daan maye. yàlla mi ko daan maye. mooy ya mooy yàlla mi koy maye ci ñam ko doon maye ba léegi ñu ngi nii soxla ko. mooy yàlla mi koy maye te ñim ko daan may ba léegi ñu ngi nii soxla ko. bu ñu ko soxlaa tam nañ ko utee ji. waaye bu ñu ko soxlaa itam nañ ko utee ji. nañ ko utee ji. nañ koy utee ji. ci nangoo liggéey. ci nangoo liggéey. te bañ a xeeb suñu liggéey. te bañ a suñu liggéey. projet bi. projet bi. du ci man la bàyyeekoo. sëriñ bi ne du ci moom la bàyyeekoo. ci ma ci Mahdi mii ak Cheikh Cissé la bàyyeekoo. ci sëñ Mahdi ak imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ci ñoom la bàyyeekoo. waaye lu ñuy teree bayiwaat tooli baay. waaye lu ñuy teree bayiwaat tooli baay dekkal ko. maa ngi ñëw wax maa di ñëw wax ma ko. Cheikh maa di ñëw wax ko ko. mu ne ko ayca bisimilah. mu ne ko ayca bisimilah. ci lañ waxtaanee ci ziyaara bi. ci lañ waxtaanee ci ziyaara bi. ba ñu waxtaanee. ba ñu waxtaanee. wax ji. seega dégg wax ji. du seega moo ma jox xalaat bi. du seega moo jox sëriñ bi xalaat bi de. du seega moo ko wax. sëriñ bi ne du seega moo ko ko wax de. su fekkee am nañu ko wax. su fekkee am nañu ko wax. mooy Cheikh Cissé ak Mahdi mii. mooy imaam Cheikh Tidiane Cissé ak Mahdi mii. seega lu mu def. seegalum def. mooy programme boobu xam na lim mën a jëriñ lim mën a jëriñ doomu aadama. mooy programme boobu xam na lu mën a jëriñ doomu aadama. su antoo su antoo. xam-xamam yëpp mu def ko ci. xam yëpp mu def ko ci. liggéey liggéey. corona jàpp na ko. corona jàpp na ko. mu ne ma li ma teree dee ci corona bi. mu ne ko li ma teree de ci corona bi. mooy yéene bi ma am pour defar pro programme bii rek. mooy yéene bi ma am ngir defar programme bii rek. moo tax defar na ko defar boo xam ne. moo tax defar na ko defar boo xam ne. borom xam-xam yi ko gis yëpp nangu nañ ne. borom xam-xam yi ko gis yëpp nangu nañ ne. xam-xam a ngi nii. xam-xam a loo xam ne. loo xam ne. amut lépp. amut lépp. amut dara. amut dara. feeñ na leer na lool. feeñ na te leer na lool am nit ñu am volonté pour ñu àggale lii rek am nit ñu am volonté. pour ñu àggali lii rek la. am na ñu wax ne waa Taïba dañoo mer ne da ngay nangu seen suuf. am na ñu wax ne waa Taïba dañoo mer ne da ngaa nangu si seen suuf. man aw ma fi suuf ba di ko nangu. sëriñ bi nee na moom amu fi suuf ba di ko nangu. suuf si bu ñu koy wax bàyyi lañ koy waxal. suuf si bu ñu koy wax bàyyi lañ koy waxal. ñun ñëpp la jur. bàyyi ñun ñëpp la jur. bàyyi ñun ñëpp la jaboote. bàyyi ñun ñëpp la jaboote. lim surtout lim am ci àddina. ñëpp ko bokkat surtout lim am ci àddina ñëpp la ko bokkat ñëpp la ko daan jox ñëpp la ko daan jox loolu dara soppeekuwu ci loolu dara soppeekuwu ci doomi bàyyi yëpp a ngi nii doomi yëpp nangu nañ ne loolu nañ ko def pour nit ñi nangu nañ ne loolu nañ ko def pour nit ñi bon nanguwuñ suufi kenn bon nanguwuñ suufi kenn te ku nekk la nga daan bay te ku nekk la nga daan bay fa nga daan bayee fa nga daan bayee bay fa bay fa projet bi soxla ko. ba projet bi soxla ko. bu ko projet bi soxlaa nag dina ko jël. bu ko projet bi soxlaa nag dina ko jël. ndax bu boobaa moo ëpp priorité. ndax bu boobaa moo ëpp priorité. nanguwuñ suufi kenn. nanguwuñ suufi kenn. ku daan bay fenn te mu bokk ci suuf si. ku daan bay fenn. tam bokku ci souf ci continuer di ko bay. continuer di bay ci borop boba li nga xamne nak projet bi jël nako ko ne fii lay commencer way li nga xamne projet bi jël nako ko ne fii lay commencer foofa bu fa kenn bay. fofa bu fa kenn bayati. ku ko bay dañ ko génne. ku fa bay projet bi dana la fa jëlé li dess te te te jëlaguñ ko projet bi jëlagu ko. li dess te projet bi jëlagu ko. ayewuñ ko kenn. aayewuñ ko kenn. ku bëgg bay na dem bay. ku bëgg bay na dem bay. ca condition yam daan bayee. ca condition yam daan bayee. xanaa xanaa ñun tamit comme ay taalibe baay. xanaa ñun tamit comme ay taalibe baay. génn projet bi. génn projet bi. danañ fa am tool boo xam ne dañ koy tuddee tooli baay. danañ fa am tool boo xam ne dañ koy tuddee tooli baay. bu boobaa taalibe yëpp ñu daje di bay tool bii bàyyi lañ koy bayal. bu boobaa taalibe yëpp di daje ne tool bii bàyyi lañ koy bayal. su ko defee bàyyi buñ ko bayalee. su ko defee bàyyi buñ ko bayalee. ngeen gis ci barke ak. ak ak ak ak ay ajaayibu rabbaaniya di ngeen gis ci barke ak ay ajaayibu rabbaaniya loo xam ne du ngeen ko gis seen tool yi bopp loo xam ne du ngeen ko gis ci seen tool yi bopp yi te loolu dëgg la te loolu dëgg la lu wér la lu wér la ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi ne ñu ngi ñaan yàlla ñu xam ñu xam la tubaab ba waxoon la tubaab ba waxoon lan laa mën a defal suma réew. lan laa mën a defal sama réew. ndax mën naa defal suma réew dara. ndax mën naa defal sama réew dara. mu ne waaw mën naa defal suma réew dara. mu ne waaw mën naa defal sama réew dara. ñun tamit. mo ñun tamit. ndax mën nañoo defal suñu réew dara. ndax mën nañoo defal suñu réew dara. mën nañ ko. mën nañ ko kay. nañ ko def. nañu ko def. nekkul réew yoo xam ne réew mu développé la. nekkul réew moo xam ne réew mu développé la. amagut industrie bu mat sëkk. amagut industrie bu mat sëkk. waaye am na suuf ak ndox. waaye am na suuf ak ndox. suuf ak ndox loo ko laaj mu jox la ko. suuf ak ndox loo ko laaj mu jox la ko. kon nañ jublu ci mbay ñun ñëpp. kon nañ jublu ci mbay ñun ñëpp. ndax euh, bu boobaa. ndax bu boobaa. dinañ am. dinañ am suñu amee. suñu amee. ndimbalal suñu gouvernement lay doon. ndimbalal suñu gouvernement lay doon. peuple. ndax peuple. dafa dimbale gouvernement am. dafa war a dimbale gouvernement yam. ni muy xaaree ci gouvernement mu dimbale ko. comme ni muy xaaree ci gouvernement mu dimbale ko. waaye toog rek na gouvernement bi gouvernement bi gouvernement waaye toog rek dafoo dara nan gouvernement bi gouvernement bi. parce que ñun dañoo nekk ay victimes. parce que ñun dañoo nekk ay victimes. ci ay politique yoo xam ne. ci ay politique yoo xam ne. mosuñoo ittewoo. mosuñoo ittewoo. jeunesse bu ndaw bi. jeunesse bu ndaw bi. jàngal leen métier. jàngal leen métier. jàngal leen liggéey. jàngal leen liggéey. jàngal leen xam-xam. jàngal leen xam-xam. waaye li ñu def yëpp. ci université bi ba université bi fot. mooy dugal ci université ba université bi fot. xale yi génn. xale yi génn. amuñ lu ñu def. amuñ lu ñu def. liggéeyuñ. liggéeyuñ. di gis ku génn université. di nga gis ku génn université. ba àgg ci âge ba àgg ci âge kenn waxu ko liggéey ngi nii. kenn waxu ko liggéey ngi nii. te loolu mën nañ koo dindi. te loolu mën nañ koo dindi. waxuma dindi xuloo xeex ak politiciens yi ah. sëriñ bi ne waxul dindi ko ci xuloo ya xeex ak politiciens yi de. waaye dañ koy dindi ak suñ jëf. waaye dañ koy dindi ak suñ jëf. dañ koy dindi ci tool yi. dañ koy dindi ci tool yi. dañ koy dindi ci mbooleem façon yoo xam ne. dañ koy dindi ci mbooleem façon yoo xam ne. mën nañ cee àgg. mën nañ cee àgg. ba tabax liñ bëgg. ba tabax liñ bëgg. te xuloo du am. te xuloo du am. te xeex du am. te xeex du am. force sa gouvernement dina la dimbale parce que yaa ngi koy dimbale. te par force sa gouvernement dina la dimbale ndaxte yaa ngi koy dimbale. waaye ku lay bëgg a dimbalee ay ay ay ay idéologie rek. waaye ku lay bëgg dimbale ay idéologie rek. yoo xam ne taxawut gisoo ko. yoo xam ne taxawut gisoo ko. gisoo gisoo lan mooy laïcité gisoo lan mooy démocratie gisoo yooyu yëpp gisoo ko li nga gis mooy naka laay añee naka laay reere loolu nga gis. gisoo lan mooy laïcité gisoo lan mooy démocratie. li nga gis rek mooy naka lay añee nan lay ree reeree loolu rek nga gis. naka lay am fu ma tëddee. naka lay amee fu ma tëdd. am fu ma uufee sama njaboot. naka lay amee fu ma uufee sama njaboot. liggéey bi ne la ci man nga koy amee. liggéey bi ne la ci man nga koy amee. su liggéey amul nag lu su liggéey amul nag lu dul. dellu ci suñuy tool bay. dellu ci suñuy tool bay. liggéey. liggéey. nañ takkaayu. nañ takkaayu. nangu ko. nangu ko. liggéey. liggéey. yàlla mi nga xam ne. yàlla mi nga xam ne. mbay la njëkk a doomu adama mbay la njëkk terale doomu aadama. mbay moomu teraanga jooju teggee teggeeku wut ba léegi. nga jooju ci mbay mi teggeeku wut ba léegi. doomu aadama ba mu nekkee ñaari nit rek ci àddina. doomu aadama ba mu nekkee ñaari nit rek ci àddina. suuf si mu daan dundee. suuf si mu daan dundee. ba tey 7 milliards la ak dara. la ak dara. suuf soosu rek ci lay dundee. suuf soosu rek ci lay dundee. ba muy ba muy joxe mu yem ci ñaari nit. ba muy joxe mu yem ci ñaari nit. tey mu ngi joxe juróom-ñaari milliards yi nit. tey mu ngi joxe juróom-ñaari milliards yi nit. te mën naa jox lu ko ëpp. te mën naa joxe lu ko ëpp. te terewut mi ngi te terewut mu ngi fi. suuf saa suuf saa ngi fi. ndox fan ndox fi. ndox maa ngi fi. fi. mbooloo. xamut li mu war a def. xamut li mu war a def. lu yàqu rek moo ko yàqal boppam. lu yàqu rek moo ko yàqal boppam. bon nag nañ nañ nañ takkuwaat xoolaat beneen xoolin. bon nañ leen takkuwaat am itte xoolaat beneen xoolin. surtout génération bu ndaw bii di màgg. surtout génération bu ndaw bii di màgg. te yëpp ci yéen la jëm si. te yëpp ci yéen la jëm si. bu ngeen ko nangoo dogu. bu ngeen ko nangoo dogu. gis nga kii wax na léegi ne euh, kii moo ko jàngal métier. ah ki doon wax nga ne mu ngi jàng métier ci. Euh, Serigne Mbuub gis ngeen ki doon wax ne mu ngi jàngee métier ci Serigne Mbuub ba def na nangam ba def na nangam ba def na nangam ba def na nangam def na nangam def nangam pourtant Serigne demut école france de pourtant Serigne Mbuub demut école français de ci ci ci daara ji la nekkoon ak ñun ci daara ji la nekkoon ak ñun waaye bi mu gisee ne nit mën na mën naa def waaye bi mu demee ba gis ne nit mën na te mën naa def it rek mu def rek mu jóg namm iteem di def te defam yemut ci xale bii rek. te defam yemut ci. xale bii rek. xale bii rek. tasaare na lu bëree bari tasaare na lu bëree bëri. naka noonu suñu xarit Ndiaye Rahma. naka noonu suñu moom Ndiaye Rahma. moom tamit. moom tamit. moom ñu ne bokkoon daara ji. moom ñu ne bokkoon daara ko mag d'accord waaye doomi daara la ko sëriñ bi ne na moo ko mag d'accord waaye doomi daara la ko moom. waaye gis nga njëriñ bi mu am. waaye gis nga njëriñ bi mu am. ndax xam na ne nit mën naa def moo tax mu nàmbu yitteem mu def mu def ñëpp gis nañ li ñëpp gis nañ li muy def pourquoi du ngeen dogu pour loolu pourquoi du ngeen dogu yéen tamit pour loolu ne nit mën naa def nit mën naa def nit naa amal nit mën naa amal waaye nag waaye nag bu ñàkkee ñaari yëf bu ñàkkee ñaari yëf dara du ko ko def dara dara du ko def dara su ñàkkee volonté su ñàkkee volonté du def dara. du def dara. su amul amour ci xolam li muy def. su amul amour ci xolam li muy def. du def dara. du def dara. beneen beneen itam. beneen itam. bu amul mémoire. bu amul mémoire. du def dara. du def dara. te loolu yëpp. te loolu yëpp. mooy yi nga xam ne bu booloo. mooy yi nga xam ne bu booloo. tabax nation. tabax nation. ñun bëggatuñoo toll rek ne dañuy tabax ethnique ak ay. gis-gisu religion dañoo bëgg tabax nation bi. ñun rek ci dañuy tabax euh, regroupement religieux ay regroupement religieux Tidiane comme Mouride comme yépp nekk rek foofu ngay bëgg comme Tidiane comme ku rek au nom du Sénégal. dañuy tabax au nom du Sénégal. pour Sénégal yëpp jëriñu. pour Sénégal yëpp jëriñu. bu defee nag ku nekk boo demee sa daara. bu ñu ko defee nag ku nekk boo demee sa daara. xam nga li ngay def xam nga li ngay wax. xam nga li ngay def xam nga li ngay wax. xam nga li nga war a jàngale. waaye sëriñ nag boo xamee ne. waaye sëriñ nag boo xamee ne. lam war a def lam war a jàngale xamu ko. lam war a jàngale xamu ko. lam war a def xamu ko. lam war a def xamu ko. extravagance moo koy dese. rek moo koy dese. maa gën a rafet oto maa gën a rafet kër maa gën a rafet lii maa gën a bëri taalibe te zéro waaye nag su fekkee nag waaye nag su fekkee nag pare naa pour man ak sama bopp ak sama réew ak sama peuple yëpp ñu ànd pour tabax suñu bopp pare naa pour man ak sama bopp ak sama peuple ak sama réew yëpp ñu ànd pour tabax suñu bopp tabax nation Sénégal tabax nation Sénégal

ba xam. ban njëriñ la ñuy amal. ban njëriñ la ñuy amal. fan la ko amalee. ak fan lañu ko amale su fekkee tiyaan la. su fekkee. tiyaan la. tiyaan la. amal na ma njëriñ. amal na ma njëriñ. ca jàkka ja. ca jàkka ja. ak ca gannaaw takkusaan. ak ca gannaaw takkusaan. ca gannaaw suba. ak ca gannaaw suba. bu ko defee jeexal na moom. bu ko defee jeexal na ak moom. li ci des nag maag mbokk mii ñoo des. li ci des nag maag sama mbokk mii ñoo des. moo tax Baye mu ne. moo tax Baye mu ne radiyallahu anhu. du ma xam ne Tiijaan laa feeg nekkuma di wér da. du ma xam ne Tiijaan laa fileeg téyewu ma sama kurus di wér da. kon kooku Tiijaanam jàkk euh, taxu koo tàggoo kenn. kon kooku Tiijaanam taxut koo tàggoo kenn. kon ñun ñëpp war nañoo tabaxee noonu. bon ñun ñëpp war nañoo tabaxee noonu. ne benn nation la Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk. ne benn nation la Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp war nañoo def suñu kattan. ñun ñëpp war nañoo def suñu kattan. ku nekk foo mën di nekk. ku nekk foo mën di nekk. tabax nation. pour ñuy tabax nation. dimbale suñu gouvernement. dimbale suñu gouvernement. tabaxal ñu état. tabaxal ñu état. tabaxal ñu république. tabaxal ñu république. ndax état ak république. ndax état ak république. yombut a tabax. yombut a tabax de. bu ci peuple bi àndut. bu ci peuple bi àndut. jàppale gouvernement jàppale gouvernement yam. dina jafe lool. dina jafe lool. nga tabax état. nga tabax république. nga tabax république. dana jafe. dana jafe. waaye bu ci peuple bi àndee. waaye bu ci peuple bi àndee. amul dara loo xam ne jafe na peuple amul dara loo xam ne jafe na peuple bi. amul dara lu mënta am ci ja ci jàmm. amul dara lu am ci jàmm. amul dara lu mën a am te ay moo ko koy may. dara lu mën a am te ay moo koy may. ay ay du maye dara. ayoo daal. mayewut dara. dafay dafay rek waaye du may dara. day xañe rek waaye du maye dara. mooy maye dara. jàmm mooy maye dara. jàmmook sa gouvernement moo lay may. jàmmook sa moo lay may. su fekkee waxtu xëccoo jot na su fekkee ne waxtu xëccoo jot na nag xëccool. bu jeexee jeex na. bu jeexee jeex na. kii moom la yàlla sampal nañu ànd ak moom. kii moom la ñu yàlla sampal nañu ànd moom. nañ ko jàppale. nañ ko jàppale. ko dimbale. nañ ko dimbale. bañ àgg ci suñu réew. bañ àgg ci suñu réew. mën a tabax république. mën a tabax république. mën a tabax état. mën a tabax état. ba xam lan la état di tekki. ba xam lan la état di tekki. sénégalais sénégalais. dëgg dëgg ñi fi jaar ñëpp jaruñ sénégalais. dëgg dëgg ñi fi jaar ñëpp jaruñ sénégalais. yaruñ sénégalais yaruñ sénégalais. ci pour mu nekk sénégalais. ci pour mu nekk sénégalais. moo tax sénégalais léegi. moo tax sénégalais léegi. dem ci biti moo ko gënal toog réewam. dem ci biti moo ko gënal toog ci réewam. dem dem dem dem xeexali nit moo ko gënal xeexal boppam. dem xeexali nit. moko gënal xéxal bopam taxawu keneen moko gënal taxawal bopam taxawu keneen moko gënal taxaw bopam loolu yëpp moy yi fi jitu won loolu yëpp mooy yi fi jiitu woon. dañoo yore nit ñi politique rek. dañoo yore nit ñi politique rek. bu bi bu politique bi jeexee rek ñu duggaat ci beneen. bu politique bi jeexee rek ñu duggaat ci beneen domaine. buñ politiquee ba fal président rek. <coughs> buñ politiquee ba fal président rek. commencé commencé ti politique di ko daane. commencé ti politique di ko daane. ba fal keneen. ba fal keneen. loolu rek lañ fiy nekkee. rek lañ fiy nekkee. loolu du tabax état. te loolu du tabax état. loolu du tabax république. du tabax mission. du tabax mission. du tabax économie. du tabax économie. dara. du tabax dara. nañ jàngat yeewu. nañ leen jàngat yeewu. ñu xam suñu xale yi ñu xam. ñu xam suñu xale yi it xam am xam-xam. ñu ñu yëkkatiku. ñu yëkkateku. boo gisee ñaari nit ci Kaolack. boo gisee ñaari nit ci Kaolack. dëgg-dëgg dañ maa yéem. dëgg-dëgg dañ maa yéem. kenn ki mooy Baye Ciss. kenn ki mooy Baye Ciss. booy dugg Kaolack da nga gis lu rëy foofu. booy dugg Kaolack di nga gis itte bu rëy bu mu jëmmal foofu. te moo ko def. te moo ko def. bëgg a bokk ci développement wu Kaolack. ngir bëgg a bokk ci développement yi Kaolack. Serigne Mboup.

loolu mooy tabax. presse beeg ñëpp a fay gis seen bopp. loolooy tabax. loolu mooy tabax nation. loolu mooy tabax nation. tabax xeet. loolooy tabax xeet. loolu mooy politique. loolooy politique. waaye xuloo xuloo démocratie dañoo bëgg a yàq suñu ana ana démocratie. waaye xuloo di xiiroo di ŋaayoo ne dañoo bëgg a yàq suñu réew ndax démocratie ana démocratie. démocratie ana mu kan moo ko gis kenn gisu ko. démocratie amut. kan boo ko gis kenn gisu ko. te réew mu xiif ñàkk mënta nekk réewu démocrate. te réew mu xiis xiif ñàkk mënta nekk réewu démocrate. réew mu xiif ñàkk mënta nekk réewu laïc. réew mu xiif ñàkk mënta nekk réewu laïc. dafa fokk loolu yëpp bala ñu ci il faut ñu il faut ñu tabax suñu bopp ba amal suñu bopp alal. yooyu yëpp balaa ñu caa àgg il faut ñu tabaxal suñu bopp ba amal suñu bopp alal. projet bii ñuy tab ñuy ñuy ñuy defar. projet bii ñu dëgmal fas yéene koo defar. doomi bàyyi mom seen suuf. doomi bàyyi moom seen suuf. Euh, ñoom ñëpp passé nañ troisième âge wala ñu ngi ñoom ñëpp passé nañ troisième âge wala ñu ci. bon defaruñ ko pour seen bopp. bon defaruñ ko pour seen bopp. dañ koo defar pour nation bi. dañ koo defar pour nation bi. dañ koo defar pour avenir Sénégal. dañ koo defar pour avenir Sénégal. dañ koo defar pour doom yeeg sët yi nga xam ne ñu ngi ñëw. dañ koo defar pour doom yeeg sët yi nga xam ne ñu ngi ñëw. dañoo bëgg a wàññi pauvreté fii ci Saloum. dañoo bëgg a wàññi pauvreté fii ci biir Saloum gii. kon il faut ñu ànd dimbalante jàppalante. léegi. sëriñ bi ne léegi. daan nañ ñëw tool bàyyi. daan ñëw toolu bàyyi. di indi ay jumtukaay. di indi ay jumtukaay. ay bayukaay. ay bayukaay. ay illeer ay sémmiñ. ay illeer ay sémmiñ ay ŋoosi. ay paaka. ay paaka. léegi loolu. léegi mën a tuta am. léegi loolu mën a tuta am. waaye am na benn carte boo xam ne moo koy changé. waaye am na benn carte boo xam ne moo koy changé. carte dix mille. carte dix mille. carte cinq mille. carte cinq mille. carte deux mille cinq cent. carte deux mille cinq cent. loolu su fekkee ne pare na. loolu bu fekkee ne pare na. amut lu mu mënta génn ci alal. amut lu mu mënta génn ci alal. te alal jooju bu ne fee day day jàppandal projet bi rek moo am. te alal jooju. bu demee fee day jàppandal projet bi rek mu am. carte yooyu di ngeen ko gis. carte yooyu di ngeen ko gis incha allah. danañ ko jox kilifa yi muqaddam yi borom daayira yi. danañ ko jox kilifa yi muqaddam yi borom daayira yi. ñoom ñëpp ñu ci nekk. ñoom ñëpp ku ci nekk. loo ci mën a def rek. loo ci mën a def rek. ak say taalibe. ak say taalibe ci itte gu kawe. nga def ko nga def ko ci. am na déjà ñaari xale yu nekk Italie. am na déjà ñaari xale yu nekk Italie. kenn ku nekk yónnee na ma fukki junne. sëriñ bi ne kenn ku nekk yónnee na ko fukki junne. dañoo dañoo dañoo jënd carte yooyu. ne dañoo jënd carte yooyu. def nañ ko. def nañ ko. kon nag su fekkee. kon mi ngi nii carte yaa ngi nii. carte yaa ngi nii. toolu baay. Ah, am na dix mille am na cinq mille am na deux mille cinq cent. mu mu mu watt. bayukaay yi ñu daan bay. mu watt bayukaay yi ñu daan bay. semañ yeeg et yeeg ngoos yeeg rato yeeg yooyu yëpp. 2500 remplacé na ko. 1000 francs wala 5000 wala 2500 remplacé na ko. yal na yàlla yombalal ñu. yal na yàlla yombalal ñu yaara bi. yal na yàlla dimbale ñu. yal na yàlla dimbale ñu bi. yal na yàlla may gis-gis boo xam ne. yal na ñu yàlla may gis-gis boo xam ne. ni ko Abdou Malick waxoon xaw ma Abdou Malick xaw ma monsieur Ndiaye. ni ko sëñ Abdou Malick waxee woon sànq wala coopérative Baye moo fi njëkk def ci Sénégal. coopérative Baye moo fi njëkk def ci Sénégal. Euh, agence yii di yóbbu nit ñi Makka. agence yii di yóbbu nit ñi Makka. Baye moo ko def ci Sénégal. kenn musu koo kenn musu koo yab kenn mosut koo yab fenn. parce que nit kenn waru koo yab. ndax nit ku nite dëgg kenn warut koo yab. te lu nekk mën te lu nekk mën xam nga tax tey ma dugg ci kaar sëriñ bi ne ndax xam ngeen lu tax tey mu dugg ci biis bi taxaw janoog ñun. ndax damay seet ndax mën nañoo soppi wala mënuñ ñoo soppi. ndax dafay seet ndax mën nañoo soppi wala mënuñ ñoo soppi. ndax ñun mën nañoo soppi. ndax ñun mën nañoo soppi. wala mënuñoo soppi. wala mënuñoo soppi. ndax ñun am nañ dogu. ndax ñun am nañ dogu. wala amuñ dogu. wala amuñ dogu. bi ñuy ñëw ci biis bi. bi ñëw ci biis bi. nit ñi miir. parce que nit lu mu miin rek moo am pour moom. nit ñi miin parce que nit lu mu miin rek pour moom loolu rek a am. nit ñi miin di ñu gis waa voiture yu ndaw yi voiture yu luxe yi. nit ñi miin di leen gis ci voiture yu ndaw yi voiture yu luxe yi. buñ dawee ci voiture yi duñu ma gis. buñ ci 4x4 voiture yu lex yi duñ ko gis duñ fa gis xalifa bi. ñoom ñëpp ñu daw ñëw ci kaar bi. ñoom ñëpp ñu daw ñëw ci kaar bi. bon nit mooy miinal. bon nit mooy miinal. waaye nit mooy soppi itam. waaye nit mooy soppi kon ñu ngi yaakaar. kon ñu ngi yaakaar. suñ jotaay bi yëpp dina doon jotaay yu soppi. suñ jotaay bi yëpp dana doon jotaay yu soppi. Ah? yaa ci même bis waaw ci jotaay nit ñi soppeeku ñëpp bi bu ko defee nit ñi ñëpp bu ñu seetee ci oto yi ndaw yi gisuñu fa sëriñ bi ñu babbee ko ñëw ci biis bi nga xam ne nit mën naa soppi xam ne nit mën naa soppi nit mën naa soppi nit mën naa soppi soppeeku nañ lañ daan xaar ca oto yu ndaw ya soppeeku nañ lañ daan xaar ca oto yu ndaw ya ñoom ñëpp ñu wàññeeku ñëw ci biis bi gisuñ ko fa ñu wàññeeku ñëw ci biis bi kon soppeeku mën naa am. kon soppeeku mën naa am. wàññeeku mën naa am. wàññeeku it mën naa am. lii erreur la naa ëññeeku. lii la naa ëññeeku rectifié ko. loolu lu mën a am la. lu mën a am la. bon nag. Sénégal. sëriñ bi ne ñu ngi yaakaar ci Sénégal. génération bu ndaw di màgg surtout génération bu ndaw bii di màgg si. xeetal xeet xeeta xeet seetaat leen seen bopp. seetaat bopp. ne. ay mbindeef yu cher ngeen. ñu cher ngeen ci yàlla. ñu cher ngeen ci yàlla. ñu cher ngeen ci Sénégal. ñu cher ngeen ci Sénégal. bon war ngeen a cher ci seen bopp. bon war ngeen a cher ci seen bopp. génne itam lu ko jar. génne itam lu ko jar. yal na leen ci yàlla dimbale. yal nañu ci yàlla dimbale yaara bi. jotaay bi ñëw fii tey. jotaay bi ñëw fii tey ci tey ba ña seen teew fii. mën nañoo wax ne soppeeku dellu ca cosaan mën naa am. ba tey mën nañoo wax ne soppeeku dellu ca cosaan mën naa am. ndax bi muy laata ñëw Taïba. ndax sëriñ bi ne bi muy laata ñëw Taïba. ñaari fan. ñaari fan. dañu waa Taïba dañoo mer dañuy def dañuy def nii dañuy def nii may leen bon ma bàyyi projet bon ma bàyyi. dañ na waa Taïba dañoo mer dañuy def nii dañuy def nii sëriñ bi ne kon ma bàyyi. waaye. waaye. naa dem ba naa dem ba àgg ba xam. naa dem ba àgg ba xam la fa ne. su ma xamee. su ma xamee.

ngi ñaan ñun ñëpp ñu ànd ak xol yu set. bon sëriñ bi nañu mu ngi ñaan ñun ñëpp ñu ànd ak xol yu set. ñu liggéey suñu projet. ñu liggéey suñu projet. soppi suñu réew. soppi suñu réew. wàññi dara ci biti fii lañ koy jëndee. dootuñ jënd di ko fa jéggaani fii lañ koy jëndee. tey ba tey ba mooy far mooy bëgg di yóbbu di jaayi ci biti. تلو يب سرنج بن من نعم خم قال لكم من نعم بيت رب العباد بيت رب العباد قصيده رب العباد قصيده رب العباد ين واتاب لي نتي ام كن امو ين واتاب لي نتي ام كن امو كو تي بو اميل شير نك دوكو سانك سرنج بن نيت اميل شير نك دوكو سانك داي خم فالور با ني نيوم ني في نيكال باي يال في صح bëti bëti bëti bëgg leen lañ leen di xoolee. bëti bëgg leen lañ leen di xoolee. bëgg dimbale bëti dimbale leen lañ leen di xoolee. bëti dimbale leen lañ leen di xoolee. bëgg gis leen ngeen yëkkatiku moom lañ leen di xoolee. bëti gis leen ngeen yëkkatiku moom lañ leen di xoolee. bëgg leen gis ngeen dolleeku moom lañ leen di xoolee. bëti bëgg gis leen ngeen dolleeku moom lañ leen di xoolee. ci dolleeku waay yëpp nag. ci dolleeku waay yëpp nag. bu ngeen ñu ci dimbalee mu mu baax. bu ngeen ñu ci dimbalee mu baax. bu ngeen ñu ci dimbalewut ñu dese suñuy ñaan di leen ñaanal rek. bu ngeen ñu ci dimbalewut ñu dese suñuy ñaan di leen ñaanal rek. waaye defe naa yéen tamit. waaye sëriñ bi ne defe na ne yéen tamit. ku lay lebal lu baax doo man lu dul fay ko lu baax. ku lay lebal lu baax. doo man lu dul fay ko lu baax. lu baax rek lañ leen lebal. te xam ngeen ne lu baax rek lañ leen lebal. xëccoo wuñu ak yéen dara. xëccoo wuñu ak yéen dara. ñëwuñ di leen wër di laaj addiya waxtu wu nekk. ñëwuñ di leen wër di laaj addiya waxtu wu nekk. au contraire dañ leen di jox. au contraire kay dañ leen di jox te dëkk ci. di leen ñaanal. di leen ñaanal tegal leen ci. bon nag. bon nag. su fekkee nit amel na nit bor. su fekkee ne nit amel na nit bor. yéen yéen a ñu ameel bor. yéen yéen a ameel sëriñ sii bor. du man ñun ñëpp. yéen a ameel njabooti baay gi bor. waaye baal nañ leen ko. kon bal nañ len ko. waye bal nañ len ko. waye bal nañ len ko. te bu ngeen beugé ñew len ñu lebalat len te bu ngeen beugé ñew len ñu len assalamu alaykum wa rahmatulah. jërëjëf maa ngi Cheikh euh, euh, kaaba gi deug ngeen kaddu yi am solo yi mu wax si mbax ak yar ak tabe deug deug ñu ngi kontaan si moom di ñaanal yalla dafa ko jamm dafa ko tawfiq ngeen diko ko ci ko ci TV ñu bayiko rek mu argent

làq nañ taarix yu bëree bëri dale ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba ci Cheikh Alaaji Abdoulaye Al Khalifa saa yu ñu wootee rek mbokk taalibe yi ñëw nañ liggéey ko liggéey bu mucc ayib ci jamono Cheikh Alaaji Abdoulaye ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoulaye Wilane ndaamal bàyyi yàlla na yàlla yokk leeram te tas ci barkeem ñëwoon na fi ak ay taalibeem liggéey ko liggéey bu rafet loolu nag muy wane ne rek saa yu bàyyi wootee wala xalifam mbokk taalibe ñëw nañ def fi liggéey bu am solo kon ñu fàttali leen liggéey yooyu. ñu ngi tey fii ci Taïba Niassène ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Abdou Wilane moo ko jiite ñii di ay taalibeem yoo xam ne ñu ngi ñëw di liggéeyal sëriñ bi xalifa bi Xaaj Abdoulahi Ibrahima Niass. Euh, ci gannaaw foofu ngeen gisoon ñu toog léegi foofu la kilifa bi toog euh, waaye ñu ngi ci ànd ak takku ànd ak farlu euh, ànd ak taalibe ñoom ñëpp ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci ci Taïba Niassène ah ñoom ngeen gis ñu ñu ngi sikkar kooku ngeen gis noonu mooy sëñ Abdou Wilane ah. euh, jiite taalibe yi liggéey bi rafet trop ah. euh, ni ñu ko defee ci Taïba Niassène moom lañ ko defee fii tamit ci nu Kër yi euh, lii tamit firnde la joo xam ne comme Baye mos nañu ko wax ci benn ziyaara maanaam signal yi ci boppam noonu la jiitee woon taalibe yi lu mel noonu suma yaram daw na ci ndax su ma xoolee Cheikh Abdou Wilane moo tey noonu tar yi ànd ak taalibe yi ñoom ñëpp ñuy cëll gerte gi te xam nga ne su fekkente dañoo wax ne ci ndamb mboq la ñu continuer dem ba ci góob euh, euh, dugub ji ñu tourné waat di tar gerte gi lii nekk na loo xam ne lu rafet la loo xam ne luy melal lay tamit waaye tamit ay taalibe boo leen jiitee ci mbir da nga cay jiitu walees nag ndax mas naa koo wax ci benn bés ci jamono ma ne ay góori yàlla yi góori yàlla yi bàyyi nekk fii ci dëkk bi man daal ñi ma ci gën a nawloo ñu demee ni Cheikh Abdou Wilane euh, moom laay xoolee comme ku nekk ci fii ci Mauritanie ñu koy wax na xaas du Misri xam nga ne kii di Cheikh Abdoulaye tey mën naa toog kii ron garab bi eh, tamit ay taalibe di def ni ko bëggee waaye tamit defut loolu waaye mi ngi jiite mbooloo mi nekk ci loolu di wan ne lii may def loolu laa bëgg ñun tamit ngeen di ko def dafay nekk loo xam ne daf leen dafay rafetloo waaye tamit daf leen di gën a sawarloo kon mu mel ni rek it loolu ñun ñu ngi koy sante yàlla nga di ko jottali sëriñ bi woon ko ne ko liggéey bi nii rek lañ ko doxalee woon moom lañ ko fanaanee talaata ci guddi eh, jàpp àllarba ji ba tey jii ci alxames ji ñu yendoo ko noonu lañ ko defee bi ndigal li jibee tamit dafa mel ni bam ne kër ma kanji rek taalibe koo waxee mu ne kër ma kanji laa jëm kër ma kanji laa jëm fi nekk ni jamono ji fekk na liggéey bi yëpp jeex na tàkk tàkk ba dara desatu ci ñu ngi ci tarum tool bi euh, ci lañ nekk nii euh, di liggéey nii moom ngeen gis nii asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Kossy TV yi ñu leen di ndokkeel baax a baax di leen ziare di leen wàccee Kossy ne seen wàccuwaay si ànd bi ngeen ànd ak programme mu Kossy TV gis ngeen àll bu am solo bi ngeen jàkkaarloot moo nekk si procès yi xalifa saahibul faydatu tijaaniya Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass si ni mu ko bëggee ak yitte ji ak bëgg-bëgg bi. ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla may ko si ndam bu baax a baax a baax waaye Kossy TV ak ni mu koy defee waxtu wu nekk rek dana jiitu si place ba liggéey fa fii ñu taxaw tembe rek moo nekk fi ñuy wax Kër nekk si toolu Mawlana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye yi gën a siiw te gën a mag fii ñu taxaw moo nekk Kër Ayré ngeen gis àll bi ni mu mel ak ni mu yaatoo nii dëgg-dëgg mu nekk bëgg-bëgg boo xamante ne ni xalifa bi am na ko waaye taalibe yi am na ko waaye dafa jiitu nag taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee fii si dëkk bi di Taïba Niassène gën koo bëgg projet bii nii ndax projet bi li mu ëmb dafa yaatu xalifa bi si bëgg-bëggam waratuñ dem rek yem si mbayam Euh, gerte gi ñor na dugub bi ñor na jeex na rek ñu jeexal ko noonu nee na dañu war oh, at mu jot war nañ see mën a bay ñett ñetti mbay yo xamantene ni ci ben at bi lay nek loolu nak muy wane rek ne euh, mom projet bi mu am bëgg-bëgg bi mu am mooy ku ci ne am liberté way ku ci nek am sa euh, taxaway bop bo xamantene ni da nga mën fajal sa bop sa aajo ta do ñaan do talal loxo ta kenn ku nek ci ñun ñi lañu ko suñu wajuri fagulé won waye kon dañuy wax jërëjëfe Mawlana Cheikh l'islam Alaaji ibrahim ñess bay yal yalla fayal ñu ko motax tax TV jiitu won si euh, dugg ci bi ci biir dëkk bi ñu wal leen ko ngeen gis jumaa ju taaru ji ni waye ngeen gis dëkk bu sel bi waye ngeen gis alli bi nga xamantene ni bo duggu dugg Taïba limi yaatu yëpp titre foncier Mawlana Cheikh Ibrahim la mu fagul ko talibé yi fagul ko njabor gi fàggul ko aduna bi yep waaye comme sen télévision Kossy TV mom ngeen tan ta wóolu ko moo tax lépp rek sen bëgg-bëgg la ak sen yakar la rek dañ ci dox euh, ba andil len lu wër te wóor ngir andil len preuve bi nga xamantene ni motax moo bi ne alli bi ñi bàyyi tay nag yi di ci jaar alli bi ñi bàyyi tay duñ ko bay alli bi ñi bàyyi tay ba lañ koy jëfëndiko deug deug loolu dafa wara jeex kon nak motax tay ñu andi loon ben reportage bu xawa gàtt rek fi ñëw fi ci Kër ayré way gis ngeen diggante Kër ayré ak juma ji Medina bay bi ben mbedd la amul dara lu dox ci diggante bi limi sori ni yëpp ben euh euh dëkk bo xamantene ni la ben àll bo xamantene ni la fu nekk tay ci dëkk yi wër Taïba Niassène li ko dagg si Kër Maba Thiissé Kër Abibou Ndiobène Ndiobène Ouloumbang Ndiobène yëpp ak fi nga xamantene nek chamène dëkk yooyu yëpp suma limee dinaa jum mbiteen abdou mbiteen waalo nekk dëkk yoo xamante ne nii ñëpp ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim la ñuy nooyee kër Ali Paté ah seen baabu daado ñu yëpp da ah daaga jogop daafaar yooyu yëpp dafa nekk si tund boo xamante ne nii tund Mawlana Cheikh Ibrahim la boo xamante ne maam El Hadj Abdoulaye Niass mi fi fekkoon liggéey na fi liggéey ba am solo waaye doom ji nga xamante ne nii daj na réew mi di Mawlana Cheikh l'Islam liggéeyal na àdduna waaye liggéeyal na kon dañuy wax ne gannaaw boo deferee si biti ba pare da ngay dikkaat si biir nag lépp lu fi desoon nga mottali ko lii mooy sababu xalifa bi lii mooy itee xalifa bi seen mbokk seen xarit Seydina Moussa bi tey ñëwoon jës leen liggéey bi nga xam ne moom lañ ko euh, santoon fii ci euh, teebañi seen ak li ko wër incha allahu rabbi xamaa dañuy daal di duggaat ci biir dëkk bi def fi ay reportage yu am solo ngir taalibe yi gën a mën a xam bëgg-bëgg bi ak contentement bi taalibe yi am wasalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu taxaw leen foofu incha allahu rabbi rek ñu ànd ak yéen si liggéey bi mbokku téléspectateurs yi ñu ànd ak euh, Serigne Mahdi Ibrahima Niass si kàddu yu am solo yi nga xamante ne mu ngi ko doon yëkkati si biir muy message bu am solo muy garab yi sëñ bi ban kàddu nga am rek message xamante ne nii moom la la xalifa bi joxoon pour nga jox ko mbokku taalibe waaw maa euh, que sëriñ bi li mu wax rek loolu la ñuy wax duñ ci yokk dara duñ ci wàññi dara dafa am benn waa ministère environnement dañoo ñëw pour indi ko garab yu bëri biñ déggee affaire yi bay ak affaire yi nature intéressé ko ci lay ñëw may Medina ak Saam ak Ngaan ak Daaru Rahmati ak Medina Mbaba ak Norong ñu jox leen garab yu bëri ak Fass Tidiane pour ñu ñi nga xam ne dañoo bugg garab yu meññ ñu defalee ko seen kër yi ñi nga xam ne dañoo bëgg garab yoo xam ne day joxe ker ñu jox leen ko waaye nit ñi ñooy dimbale seen bopp gasal seen bopp préparé ko nga xam ne danañ seet benn bés danañ ci waxtaan ak jeunesse si Médina bi ak ñoom Cissé waa Ansaaru Diin ak ñëpp nga xam ne su ñëwee ñu suuxatal garab yi seen bopp su boobaa dëkk bi mooy dund waaye ñoom tam dinañ ci am seen njëriñ loolu ne woon ñëpp ñoo am moo tax nañ amale ñëpp jox ñëpp pour ñu jëriñee ko wa sama gannaaw gaa ngi bëgg a métti parce que man dama indi oto bu nooy maag caam mi bi ñëwee bugg ko cee dugal. moom mu xel ñu ne ñu il ngeen il faut ngeen dugg ma ne ko sëñ bi oto yi mu ne ma dugg leen ñu dugg waaye bu ñu demee ba ci digg comme li mu mujjee wax ma ne ko ah fi ma nii de dafa mel ni suñ duggoon ci oto yi yu bees yi tamit daanaka benn la parce que éne bi ñuy dund suñu xol yi mooy dund moo tax gis nit ñi ci yoon wi niñ sawaree vraiment moo tax nit nit rek la feeg yaa ngi am éne bu rafet rek da nga gis ne innamal a'maalu binniyaat jërëjëf sama papa sama xarit président départemental bu Kaolack muy sëriñ Aliou Cissé Niang tey eh, nga ànd ak eh, kilifa gi fii ci andi eh, fi projet bu am solo boo xam ne yow si ngay yëngatu si ngay dox guddi ak bëccëg ndax ku ne xam ne ansaaru diin ci jigéen ñi nga ànd ci développement si wàllu mbay si wàllu sensé copparni yi nga xamante ne ni ñu ngi koy jëfandikoo ba bàyyi mbiram tubaab bi man kàddu nga am tey si mbégte ak contentement si ànd bee xalifa bi. waaw alhamdulilah salaatu wasalaam ala rasulillah Eh, sant yàlla julli ci yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam di gis ne rek sëriñ bi lim ñu doon jàngal di ñu ko junj tey jii daf ko confirmé ñun depuis at wala ñaari at ñu ngi liggéey ci Jamhiyatu Ansaaruddin eh, ci préparer lu ñu mel loo xam ne ay xalaat lay jógee ci moom def bi mu ñu jox exemple def nañu banque yi ngeen gis ci àddina bi sax ay nit a xalaat rek def ko donc liggéey ak dogu rek mooy tax nit mën a def dara donc tey jii wane ne confirmé ne ne suñ dogoo danañ def kon ñu ngi sant yàlla di wax taalibe ne liggéey bi ñu uyu ko uyu anam boo xam ne mooy ne suñ njëriñ lañuy ñuy ñun nag ñu ngi ci doon liggéey parce que ñun Jamiyatu Ansar Din mooy nosé taalibe yi ñoo defoon appel bi ñoo defoon sensibilisation pour taalibe yi uyu ko taalibe yi uyu nañ ko li ci des mooy liggéey bi mu joxe na déclaration bi donc fi mu nekk dafay tranché ñun ñu dem tool bàyyi fekk si na waaw waaw waaw waaw dëgg la damay ñaax ndaw ñi rek ñu xam ne fi mu daaneele waxam rek laay tam laay tàmbalee pour ñaax ndaw ñi mooy liggéey bi troisième age bi taxul ñu def ko mooy ñoom yi bàyyi te wax na ko ba mu leer ñun ñoo tax mu def ko mooy génération bu ndaw bi ñoo tax ñu oote ko ñoo tax ñi pare koo def kon ñun dañu war a soobu ci tool bi def ni maam yi doon def bu ñu newaan tool bàyyi da gis ku doxee Kaolack ñëw kër Ayre da nga gis ku doxee fu gën a sori foofu ñëw kër ñëw tool bàyyi kon tey nag jamono jamono gën naa neex moyens yi am na possibilité pour ñëw am na kon buñ na tool baay na ñëpp si tool baay rek te rafetal xol yi comme ni mu ko waxee fas yéenaa sóobu ci liggéey bi jërëjëf. am si en tant que président départemental bu Kaolack Ansaarudine tey xalifa bi indiwaat ko si eh, carte dix mille mille cinq cent carte trois mille loolu am ngeen bu boo xamante ne ni war ngeen ko soo liggéey national bi président déy na ma léegi ne nañ léegi dem pour teg stratégie boo xam ne ci Sénégal yëpp dafa war a répondre ci appel bi sëriñ bi def ci financement bi. ci jënd carte yi donc nous ñu ngi dem pour suñu stratégie parce que les hommes na ci ñun ñu wax Sénégal yëpp ndax fédération partout dans le Sénégal même Taïba Niassène bii Amath Khady moo jiite fédération départementale de Ansaaru donc tey am nañu réseau boo xam ne suñ fa duggee wax ak Sénégal yëpp pour ñu uyu loolu te dana yomb président oote na ñu ngi dem kaw la kàddu gu mujj gi mooy ñaanal sëriñ bi mu gudd fan yàgg fi lool ànd ak wér sémb yi àgg ci kanamam ñu fekkee ko ñëpp fekkee ko kenn bañ ko wutee salaamaaleykum wa rahmatullah ko téléspectateurs yi comme ni ma ko waxee rek kenn ku nekk rek bëgg gis sa bopp ci ngan gi positif yi ànd ci ak yéen sama nijaay gannaaw bi la fekkee fi man nga am pour joxe ko

moy xalaat projet bi waxtaan ceeg nit génnee ko moy délibération nit ñi xam ko décision bi ak exécution bi mo ci des motax dañ né ñaari yi benn bi mébét la moy désir beneen bi vouloir la moy bëgg bëgg nak niñ koy xamé moy nga am moyen yoo koy défé ba pare jël décision ku mëna décider nak joxé décision ak exécution moy ki am moyen té ki fi bàyyi teg ku ko ëpp moy amut loolu loolu moy li xew waaw ci gattal dal dëkk bi euh, jeunes nañ pour nous ak bi ñu defar suñu dëkk ba je dëkk pour coopération dëkk ci lay dox Nigeria, tu Nigéria des Soudan Niger le Gambie au Gabon le Togo au Bénin Nous deux jours te xam nga li coopération échange ci xaalis ci ndimbal ci moyen li ñi am jox ko ñi li ñi am jox ko kële loolu moy coopération te loolu bay mo taxaw ci digg bi waaw amna luy xéñ dal yalla ko yalla agal te ñu Cheikh Diagne chargé de la commission protocole bu COMAF ak Ansaroudine euh, exploitation kergan, ñun ñoko amé way waaye sëriñ bi ñun la tourisme religieux ak un salon sur l'environnement et sur ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf alhamdulilah ñi ngi sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ñi fi teew ñëpp ñëw Taïba su nekkuloon li nga xam ne xalifa Cheikh Mouhamadoul Mahi moo fi ñëw ñëw fi rek ziyaare fi nga xam ne fi la Mawlana gane àddina loolu ngëne la ndax tey ñu fi daje ak sëriñ bi sëriñ bi indi fi projet bu bees ndax boo seetloo tay ba ni mu tëddee fu ñu toll rek am na ci koo xam ne kilifa ga fa ne yëkkati na dara Maalaaj Ablaay dafa jógoon yëkkati njàng ma ba nga xam ne ki fi njëkkoon tere mu Ibrahima Mati Ñas defalon nako teranga yu beuri ataba ci sampam keur mu jey ko fi domam Cheikh al Islam El ibrahim Ibrahima Niass fi 1950 51 mu ñew fi pour jangal ñu liggey ci lañ indé tol bu ñi wax tolu tayba bi di 608 hectares mais du ton bay rek mais na won nit ñi mbay ñu bees parce que programme yeesal jumtuwaay dañu waroon passé ay konko euh, euh, passé ay sox dugg ci ay machine baa indil ñu ko fi 1951 ñu roy ci ba nga xam ne ci mbiru mbay léegi gox bi référence la muy benn élément euh, bi mu génnee àddina El Hadj ñëw na continuer liggéey boobu indi lu bëri ci ba surtout problème mu ndox problème téléphone problème goudron lu bëree bëri bëri réglé na ko fii ñu sant ci yàlla ci loolu euh, Papa Dame moom lay wax moo noon xalif inauguration yi ndax jumaa ji biñ ko yokkee moom moo ko inauguré en 2003 Pape Cheikh ñëw na jox gàmm gi benn dimension internationale tey sëñ Maay dafa ñëw provoquer la rupture loolu mooy lan dëgg sëriñ dañ ko xam ci tabax jàkk daañ ko xam ci ubbi ay daara moom daf ne nañ ci yokk liggéey loolu moo tax mu ñëw fi nga xam ne Baye daana fi bay mu def benn projet bu ñuy wax projet boo xam ne dañuy dundalaat mbay ci français projet de réhabilitation des fonctions écologiques agricoles pastorales de Taïba Niassène projet boo xam ne deux hectares la war a nekk loo xam ne luy dundal dëkk bi la ci mbiru mbay ci mbiru euh, càmm élevage élevage yëpp nag xar ginaar ak yëpp kon liggéey bu am solo la ñëw fii di fi som muy projet boo xam bi daanaka trois milliards la deux milliards huit cent et euh, muy njariñu askan wi yëpp xale yu bëri war liggéey projet bi dina régler dund nit ñi. wante également dana jox ndaw yi ay ay am am xëy projet bu am solo muy indi ko fi mu nekk ngaram gu njëkk ci Taïba pour ziar leen wax leen ne yoon waa ngi nii fii lañ bëgg a jaar bu ñu bëggee soppi réew mi maa ngi nuyu di sant wa salaam. waaw tey ma nga bokk si ñi nga xam ne eh, def nga ay émission yu yaatu pour gën a xamal nit ñi tolluwaayu ngan gii nii tey boroo ñax tey ndaw ñi. rawatina fi xalifa bi andi tey projet bii nii muy Taïba Niassène ban kàddu lay nekk. waaw li ci nekk mooy man jiitu ma délégation bi dama bokk ci délégation bi euh, xam nga bu njëkk Baye 51 bi muy wootee mbuddim ëkk ma nit ñi dañu ñëwoon ak sémmiñ ak i daba euh, euh, tey Cheikh Mouhamadoul Mahi bi nga xamee ne. mi ngi woote tool baay dafa yaakaar ne dootuñ indi ay ay sémmiñ dootuñ indi ay ileer dañu bëgg rek ne képp koo xam ne war nga dem tool baay da jënd benn ticket da ngay jënd benn ticket léegi dootuñ dem tool baay yóbbu ileer walla ñu yóbbu wala yóbbu sémmiñ wala leen mais dañuy dem tool baay di fa jënd ticket rek mooy dem nga tool baay waaw loolu mooy suñu projet bi liggéey nañ ci mais ki nga xam ne moo moo jiite lépp moo indi xalaat bi moo conservé dossier bi mooy euh, moo Khady Niass ñu gën ko xam turu Sega ñun dañ koy jàppale rek loolu mooy suñu liggéey. ticket bi am na 2500 am na am na juróomi téeméer am na junne am na ñaari junne comme neex tamit itam mën nga jënd téeméeri ticket su fekkee aussi da ngaa ne doole ñaar. sa ñaar doomi tuut tànk mën nañ leen boole benn ticket kon daal ñu ngi ci xaar taalibe yëpp ñëpp ñi nekk bitim réew parce que document yi ñu élaboré def nañ ko anglais def nañ ko anglais ak arab dugal nañ ko dans le net ñi ngi jokkoo ak ñi ne bitim réew damay yaakaar ne ñoom ñoo ñuy mën sax ci liggéey bi wasalaam. Voilà, beaucoup de spectateurs ci euh, TV comme ni ngui koy waxé rek ki moy président Ansaroudine fi ci Taïba sen gannaaw bu serigne Aliou Cissé ñang jëlé ay cadeau joxé ko ak yeneen kilifa ci bir jotaay bi kilifa gi gannaaw bi la féké fi en tant que nga jité euh, Ansaroudine fi ci Taïba sen khalifa bi seet si leen ban cadeau contentement mo ngi tay alhamdoulillah wa salatu wa salam ala rasulillah du ngi jullit yonent bi di sant ci serigne mawla Cheikh Ibrahima waye di ñaanal ci khalifa Cheikh Mahi Ibrahima ñass moom mi nga xam ne ñëw na fii Taïba ji seen gane si ñëw mu siñ gan ko màgg ndax ñun. waaw mbokk yi seetaan Mawlana Cheikh Ibrahima mooy ki nga xam ne moo ñu si. Taïba yëpp kontaan nañ ci jabar Ansaaruddin département Nioro it ñëpp kontaan nañ ci loolu ñu ngi ñaan yàlla projet bii nga xam ne moom lañ fi. bëgg a tàmbali nii yàlla nañ ko àggalee te yàlla na àgg ci seen kanam te ñun ñëpp yàlla nañ fekkee njëriñ bi ci zahir ak ci baatin ñu ngi gërëm ñaari xale yu nekk Italie yónnee nañ sëriñ bi cent mille francs kenn ku nekk dafa bëgg a jënd dix coupons kon buntu oo liggéey bi ubbi na képp koo xam ne 2500 nga mën a jënd coupon euh, yaa ngi fii képp mën a jënd. ngeen ñu fekk fii ba toog 5000 coupon yaa ngi fii képp ku mën a jënd 10000 coupon yaa ngi fii képp ku mën a jënd lu ëpp loolu tamit coupon coupon yaa ngi fii nii. ubbeeku mooy bunta dooleeku indi la ci ne xadamoo nii naalu muraadu saatu wal maalu kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yàlla si ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko fi yàlla yàggal ndax lii wax dëgg yàlla lu rëy si Ahmad Tidiane fi nekkee indi li ñu ansaaru diin ba ansaaru taxaw na tey xalifi jugee na fi xalifa si maay indi ñu projet daan ko loolu sant yàlla la dëgg-dëgg ni ko waxee doomi bàyyi ñoo ñuy lewal di di di di ñuy ñaan yàlla kon na ñun taalibe bi dañ fas yéene fay doomi bàyyi yàlla bi ko di leen ñaanal yàlla nañu yàlla defal loolu ci barke Baay jërëjëf macha allah. kooku mooy président ansaaru din bi Taïba Niassène ñoo koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yéen bi yàlla yàlla oyfal la waaye bëgg-bëgg bi ak ngan gi nga xamante nii taxaw ngeen ko xalifa bi yàlla seebaraay fayante ak yéen jërëjëf da sëy di baraham lorolo daa fenn ko daa siri baraham seexoon ko naan ker bu suuf lee sëñ na soo daan siri barahama sama ngan daal seexu fay banjul mu may xemem loo abol fay do fay na soo daan siri barahama laa ilaha illallah laa ilaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay du baay bi ci barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di